Gaya. مبرأة والصلاة والسلام على رسول الله محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين مبوك جلدي مبوك أوديتر إخيو 90.3 مبوك تلسبيتاتر إي تي بي قناة 15 بوتين تي أك 398 ولا 217 بو قناة بلس ñing leen nuyu di leen ziar tay fi manam benen fan wéru koor mu nekk am solo tay ci talata ji ñi ngi gërëm borom subhaanahu wa taala mbokk yi xam ngeen waxtu bi nag bu jotee dañ leen di dégtal seen émission tafsiru Quran ak Oustaz Taib Socé seen mbokk bi doon puy moo nekk ci waxukaay gi fekk ak Oustaz Taib Socé Birane Cissé moo technique bi mën ngeen ñi topp aussi si internet bi si ITV l'officiel wala i rajo officiel boobu yëpp mën ngeen ñu suivre ngeen partagé mën ngeen poser seen question mën ngeen yëg température émission bi mu nekk lu am solo Oustaz ñu jox la kàddu nga nuyoo penc mi ñu doogee dugg suñu émission tey bismillahi alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafil mursalin sayidina muhammad ibni abdillahi sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashaabihi wa daaina bi daawatihi ila yawmi din yaa imam ñu ngi am mbégte toogaat fii tey di gëstu ci yonent yàlla Moussa mi ñu nekkoon ginnaaw boo xamee ne topp nañu ko ci soratu Taha ba mu tëj ko ñu koy gëstu di ko topp defe naa ne ñu ngi ko gisaat ci suratul kahfi comme suratul fi muy beneen histoire boo xam ne bi moo àndee ak xadir euh, bi may ñëw léegi mm-hmm. waa kër Serigne mbay Cissé yi nekk ci Jurbel Serigne Mbaye Cissé mm-hmm. bu Jurbel waa këram mm-hmm. ndeysaan Malick Cissé su ma juumut euh, sëtam la daana ma ñoom daara ji yëpp bu heure bi jotee dañuy ubbi téere bi kon del joxe numéro yi la te xam ne daaray Serigne Mbaye Cissé ca Jurbel ñoom nee nañ dañuy ubbi kaamil bi di topp aay yi nga xam ne moom la ñuy gëstu ci wàllu voilà mu ngoog kon ita soo xam naa soo paree incha allah nga jox leen aay yi incha allah yaa mu nekk lu am solo kon mhm. mbokk yi ni ko al oustaz euh, Mouhamed Tayib Socé béralee ci kàddoom ñi ngi ba léegi ci xissa bi nga xamante ne mooy yonent yàlla Moussa alayhi salaam mhm. Oustaz mu ngi koy fàttali démb nii Moussa xaw tuuti mu jeexal téere bi. Mhm. ngeen jàngee ci kon histoire am dafa tas si alxuraan lu tolloog fanweeri saa daana ko lu ëpp cent trente fois turam ñuy lim ko ci alxuraan kon xam nga ni kon foog nga mën a dugg ci saar yu bëri pour mën a wax ci Moussa. seetlu ngeen que ñi ngi woon sori taaxa tey dañuy génn taaxa duñu sore torop ndax dañuy génn taaxa rek dugg fi nga xamante ne mooy euh, fi nga xamante ne mooy soratu nga xamante ne kaf kaf mm-hmm. nag xam ngeen que mooy la caverne mooy histoire yi nga xamante ne mooy asxaabul kaf les gens de la caverne comme ni ngeen ko xamee woon mooy xale yooyu nga xamante ni am na seen mbir daan ci ñëw sax bu ko jotee mais li gën a am solo tey dañuy continuer histoire yonent yàlla Moussa xam nga yonent yàlla Moussa nag dundam ay histoire yu bëri la mm-hmm. gis nga yonent yàlla Moussa histoire am ak fi mu nekkoon nekkan xale Eh, ak histoire am diggante ak Firawna aw na diggante ak yonent yàlla Shuaib di nga xam ak Haroun ak nga Moussa Samiri donc toute sa vie dafa am ay histoire tey dafa am benn histoire bu am solo boo xamante ni Moussa en tant que yonent am na benn nitu yàlla boo xamante ni yàlla maanaam mbëkkantee nag moom ci dundam kooku la Oustaz Taib tey ñëw nar ñu leeral kon mbokk yi comme ni ko waxee ñi ngi kon surtout Kahf ñi ñi ñi ñuy bàyyi kon nanu ubbi saar bi sootu soo sootu kaaf nag moo nekk ci diggu téere bi boo jëlee kaamil boo ko tëjee rek mhm. nga natt ci digg boo ubbee rek kaaf ngay tombeel tey nag ñu ngi ñëw ay imam 60 moom mooy juróom benn fukk mhm. mooy wa id qaala Muusa li fataahu la abrahu xata abluga majma al bahrayni mhm. aw amdiya xoquba imam tey foofu nañu commencé mu nekk benn histoire am solo bisimilah jërëjëf yaa imam sant yàlla di julli ci yonent bi euh, sallallahu alayhi wa sallam bi ñu toppee yonent yàlla Muusa tey dañu koy topp moom ak xadir histoire bi dañuy wax ne yonent yàlla Moussa dafa mos a taxaw di xutba ci bani Israël bi muy xutba dafa wax ne moom mooy ki ëpp xam-xam ci àdduna bi moom Moussa dañ ko laaj ne ko kan mooy ki ëpp xam ci waa suuf Moussa ne man la man man Moussa en tant que prophète nag ñu koy wax yu dëgg la su ko neexee wax ko en tant que prophète ñu koy wax yu su ko neexee wax ko kan mooy ki ëpp xam-xam ci àdduna bi question Moussa ne man mii la yàlla sanctionné ko nak ndax pourquoi question bi delloo wut ko ci yalla ndax tëb rek ne man la gis nga da fay bañ ko nan man la mana mana man la hmm. yalla da koy bañ ana ana ana ana dañ koy bañ da fa bëgg xéwal gum la ta defal buñ la ko laajee delloo ko yalla subhanahu wa taala yalla nak ne comme que ki daf ma fàtte fëgg dënnam ne man la xaaral ma sanctionné ko yàlla wan ko ne ko dinaa la wan ki la ëpp xam-xam yow te du yónnent fan laa koy gisee mu ne ko da ngay dem ba ca majmaul bahrayni boo demee di nga ko fa fekk nga xam ne Moussa avant muy bàyyi ko foofu di dem ca majmaul bahrayni coono boo xam ne Moussa dina ko daj ci yoon bi keroog ci yoon bi bay bëgg a avant muy gis ki nga xam ne tey moo nekkoon xadir moo tax bi mu ne wa is qaala Moussa fàttalekul is wa is ba léegi ko la wa is wa is is ci alquran histoire la bu yàlla bëgg a jàngal yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa da koy nettali is mooy uskur fàttalekol hmm. fàttalekol xaala ba mu waxee Moussa Moussa li fataahu rakkam ja ku ñuy tuddee Yusuf ibnu Nun moom la àndaloon ci voyage bi hmm, rakkam la woon Moussa du moom kenn dëgg la mais fataahu la alxuraan fataahu mooy xale bu góoram ba ngi tudd Yusuf ibnu Nun la Moussa àndaloon di di wëri boroom xam-xam boobu yàlla yebal ko ne ko mu nga ca mañ maawul nii يوشو ابن نون كون واذ قال موسى لفتاه لا ابره حتى ابلغ مجمع البحرين كيسكو لا ابره موي دوما دوما دوما دوما اريتي موك فيك يغوما تي مجمع البحرين فنياري جيجا ديالو لا رانكونتر دو مير لا رانكونتر دو مير ميرسي بوكو فيك يغوما فا دوما تاو باسكو يالا داف نكو فوفا غاي غيس بونكال ميغا خامني مولا با خام خام نيغي تودي خادير مو جوك نك ديكو ورنك لي ديسان ما وراء لا لا لا لا لا أبره حتى أبلغ ما مع البحريني دوما دوما أريتي مكفيك يا قومي في نياري جيجي كورشة وانتي أو أمدي حقوبا أو أمدي حقوبا ولا ما دخ تيميري أت آه، ولا ما دخ تيميري أت دنا فيج ولا ما يدخ رك ما حقوبا ما يبدير ولا ما دخ أبدير آه، يجي فرق ولا ما يدخ رك آه. أبدير ما دخ بيج ولا دنا دخ بيج فلما بلغا لكنك فلما بلغا مجمع مجمع بينهما merci beaucoup bi ñu doxee ba yegsi ci fii ñaari géej yi war a dajaloo gis nga alxuraan maj ma a bay ni ximaa rek la wax foofu waxul maj ma albaxray nii ndeysaan pourtant maj ma albaxray nii la mais moo daf koy bañ a bamtuwaat ndeysaan mu ne falama balaxa maj ma a bay ni xima merci beaucoup mhm. Mhm. bi ñu yegsee ba bi ñu doxee ba yegsi fi ñaari géej ji yaa hmm? nasiya xuutahuma nee na fa la ñu fàtte seen jën ba parce que bi muy dem yàlla def na ko dangay jëw aw benn jën jën jëlal jën ndeysaan nga ànd ak Yusuf ibnu Nun ngeen dem seeti xadir Moussa jël benn jën def ko ci benn miktal miktal mooy mooy yooyu ñuy saafee jën yi nu mu tudd euh, pool benn pool merci beaucoup benn pool bu ñuy saafee jën moom la jël jën bi def ko ci pool bi ànd ak Yusuf ibnu Nun pour ñuy dem di dem ca maj Majmaul Bahrayni nee na nag bi ñu yegsee ci baax Majmaul Bahrayni falama falama euh, euh, falama balaxa majmaa ba majma al maj ma majmaa baynihima mhm. nasiya foofa la ñu fàtte xootuxuma seen jën bi bañ demee bay fekk fii fii maanaam fi ñaari jën yi maanaam fi ñaari géej yi korosé mhm. ñu toog fa fa la fàtte seen jën ba jën ba yonent bi wax na ci dara jën ba ah, jën ba fi fi ñu teg jën bi ci xeer bi ndox mi yàlla dafa dàq ndox mi xoolal yàlla dafa dàq ndox mi ba ndox mi ndox mi maanaam duus yi buy ñëw doo dootu laal jën bi palaas boobu moom la yonent bi ay aynul xayaat la ko tuddee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na fi nee na fi jën bi nekkoon mhm. am na fa place bu ñuy tuddee aynul xayaat yonent bi na ne lépp lu dee bu ca maanaam lépp lu dee buñ ko buñ jëlee ndox ma laal ko ci rek mu dundaat jën bi dafa dee ñu def ko ci pool bi teg ko ci place bi mais ndox moomu yonent bi ne mu ngi tudd aynul xayaat lu dee lu ne buñ ko ci naan nandalee mu dekki ndox moomu ca la jën wa naan. l'eau de la vie. dekki nekkaat jën daw dugg ci biir géej gi. allah merci beaucoup. jën bi deewoon mën nga jën bi deewoon bañ teg ci pool bi. moo laal ci ndox moom yonent bi ne maa ul xayaat la tudd. eau de la vie eau de la vie. allahu akbar yonent bi ne ba mu ca naanee dafa dekki moom jën wi dekkiwaat daw dugg ci biir géej gi déglu rek. subhanallah moo waral. Eh, falama balax falama balax majmaa baynihima nasiya xóotahuma fa lañ fàtti seen jën wa dañ fa fàtti jën wa léegi nag fa taxasa sabilahu fil bahri saraban fil bahri saraban ñu commencé léegi di dox ci géej gi dem si dañoo fàtti jën bi. jën bi jën bi rocceeku dugg ci biir géej gi dem ñu topp tefes gi ñu topp tefes bii dem mhm. lan la ji teg falama jaawa falama jaawasa bi ñu demee ba romb place ba ñu ba romb nee na xaala li fatahu mu yónnent yàlla Moussa wax Yusuf ibnu Nun ne ko ne ko lan atina xada ana indi ñu suñ añ bi parce que jën bi añ lañ ko defoon ah. jën bi dañ koo jëloon def ko ci pool bi pour bu ñu demee ba noppalu ba soxla añ ñu génnee jën bi mu nekk seen añ léegi jën bi rocceeku na dem na dugg na ci biir géej gi dem na léegi dox nañ ba sonn Moussa nee na yusux ibnu suun eh, ibnu nun léegi nag eh, aatina gada ana laqad laqina min safarina hada nasaban indil ñu añ parce que dañoo fatigué te jën bi mooy añ jën bi dem na añ ba dem na ba dem na añ ba dem na de ah aatina gada ana indil it li ko waral mooy laqad laqina min safarina hada nasaban suñu voyage bi dañ cee sonn añ jot na kaay ju toog nopp lu ñu añ lan la ñuy añee jën ba jën ba dem na añ ba dem na xaala hmm? mu ne ko im ibnu Nun wax yonent yàlla Muusaa ne ko a raayta is eh, is raayta is away na ila saxrati eh, bi ñu demee ci xeer ba noonu toog fa toog ci xeer bi noonu di noppalu ah nee na fa inni na saytul xoota damaa fàtte jën ba falaa ko fàtte place ba ma fàtte jën ba xam nga yu Muusaa yàlla def loon ko da ngay dem di dem di dem jën bi place boo dem ba fàtte jën ba rek falaas boobu foofu la xadir nekk. dox bi yëpp xadir lay seet xadir moom lay seet. yàlla ne ko place ba ngay fàtti jën ba foofa ngay daje ponkal moomu nga xam ne mooy xadir léegi nag bi mu ñëwee mu ni qaala araayta is awayna ila saxrati fa inni nasaytul xuuta li ma la bëgg wax mooy bi ñuy dox ba yegg ca xeer wa foofa laa fàtti jën ba yusuf ibnu nun moo ko wax Moussa fa inni nasaytul xuuta ne ko nag wa ma ansanihi ila shaytaan kenn fàtteloo wut ma ko ku dul shaytaane an askura moo ma ko maanaam seytaane moo ma ko fàttaleel ma bañ koy fàttale ko ba fàtti jëloo seytaan moo muur xelam moo muur sama xel ba ma bañ koy fàttali fàttali ndax moo jën bi rëcc na dem ma fàtt fàttale koy wax ñu jëm koy seet nee na wa taxasa sabilahu fil fil bahari ajaban mooy lan mu topp géej gi moom it di dem rek ndeysaan jaaxle lool di yéemu lool moom Moussa xaala mu xaala dalika ma kunna nabgi maanaam bi maanaam bi ko booy bi bi ko Yuusuf ne ko foofa la ñu fàtti jën ba Moussa ne na ko ah, ah kon place boobu laa doon seet ndax yàlla waxoon na ko ne boo demee ba fa nga fàtte jën wa place bi nga fàtte jën wa boo fa demee foofu ngay daje xadir cible bi foofu mooy cible bi moo tax bi mu ñëwee bi ko waajee na ko bi ñu toogee ca xeer wa di fàtte jën wa Moussa def na ko aha ah, kon daalika maa kunnaa nabghi loolu mooy liy soxla kon Moussa da nga jox ay tegtal dañ ko jox ay tegtal tegtal yoo xam ne bu ko gisee rek xamal ne foofu lay gis xadir moo tax bi demee ba fàtte jën wa yàlla noon na ko place ba ngay fàtte jën ba place ba ngay perte jën wa place boobu fala fa ngay daje ak xadir léegi nag ci xeer woo wala daje ak fala fala fàtti jën wa moo tax bi mu ne yusuf ibnu nun atina gada ana indi mhm. ni ñuy añ mhm. laqad laqayna min safarina hadan nasaban suñu voyage bi dañ cee sonn lool indil añ bi ca ko wax na ko nag isra eh, israayta is awayna ila saxrayta fa inay nasaytul xuuta wa ma ansanihi ila sheytan an askurahu ba ma toogee ca xeer ba falaa fàtte jën ba ki ma ko fàttalil mooy seytaane moo ma ko maanaam seytaane moo tax ma fàtte koy maanaam moo tax ma bañ koy fàttaliku Moussa ne ko dalika maa kunna nabghi voilà ñun foofu lañ soxla woon yàlla noonu na ko place ba ngay fàtte jën ba fa ngay ndaje xadir macha allah looloo waral léegi mu ne ko fart eh, eh, fartada ala asarima xasasan ñu ñu ñu retourné wu ñu hmm. dëppaat di xool fan lañ fàtte jën ba di xool fan lañ fàtte jën ba dafa foofu mooy cible bi mooy cible bi fu yàlla ne ne ko fa ngay fàtte jën ba foofu ngay daje xadir moo tax bi ñu rombee place bi xam nga dañoo toog di noppalu ñu fàtte jën bi jën bi daw dugg ci biir géej gi ñoom ñu continuer di dem. moo tax ma ne Falama Diawasa. Falama Diawasa merci ba ñu ko ne kon léegi indil indil ñu ñu mu ne ko fàtte naa jën ba foo foo ko fàtte mu ne ko ca xeer wa te li tax ma fàtte ko mooy seytaan xeer ba mu fàtte jën ba fa la ko yàlla waxoon ne foofu la xadir nekk da ko wax ji moo tax ne ko nañ dëpp far tadda ala asarihima xasasan merci beaucoup kon léegi nañ dëpp ndax romb nañ yu ma romb nañ romb nañ fi ma yàlla tegtaloon kon léegi fartanda ala asari ma xasasan léegi nag faw léegi nag ñu retourné ñëw yegg si nañ léegi Moussa tourné na moom ak Yusuf Ibn Nun yegg si nañ ci xeer ba ba yegg see xeer ba fa wajada abdan merci beaucoup fa lañ fekk benn jaamab yàlla muy góor googu nekk wallu yàlla woo xam ne li ko yàlla jox ci xam-xam xam nga itam nag yàlla bëggul kuy fëgg sa dënn waay sama te yàlla dafa bari le xoolal yàlla dafa bari le yàlla mooy def benn place ba nga yaakaar ne fii rek la yàlla def fekk defu fa dara tuuti la fa def am na feneen fu mu def lu ëpp loolu. allahu akbar loolu loolu lañ ciy jàngee di. maanaam lépp ma yaatu. dafa yaatule dina la may ba nga ni mayu yàlla fi la yem fekk na foofu tuuti la def am na feneen fu mu def lu gën a bari lool xam nga Moussa yónnent la dañ koy révélé wax yu yàlla day jox Jibril mu koy jox mais keroog ba mu fëggee dënnam ne maa fi ëpp xam-xam la ko yàlla yebal ci xadir xadir du yónnent jaamu yàlla rek la fa wajada fa wajada abdan abdan la benn jaam min ibadana salihin sunu jaam yi jaamu yàlla bu baax rek la jaamu yàlla bu baax léeg-léeg moo am ci mbàqaama lu yónnent manta am allahu akbar allahu akbar yàlla daa bari le allahu akbar yàlla daa bëri kon léegi fa wajada abdan min ibadina ndeysaan mu fekk fa benn jaam ci samay jàmman yàlla jaam ba xadir la yàlla moo ne atay naahu jox naa ko rahmatan yoon yërmande min indina jox naa ko xam-xam rahma googu yër xam-xam lay firi ataynahu rahmatan min indina kon ok kon xam-xam yërmande la xam-xam yërmande la xam-xam sëñ bi ëpp na yërmande xam-xam yërmande la parce que xam bi médecin bi yàlla da koy tuddee xam-xam yërmande la xam-xam yërmande la moo tax yàlla waxul ko ataynahu ilman déedéet ataynahu rahmatan min indina gis nga ko xam-xamu xadir bi rahma la ko yàlla tuddee foofu ndax it nag rahma la attention xaaral ba mu ñëw mu ngi ñëw mu ngi ñëw rahma la xoolal ataynahu rahmatan min indina wa allamnahu min ladunna ilman al ilmu laduni la am wa allamnahu min ladunna ilman xam nga ilmu laduni lañ koy tuddee mooy lan ilmu laduni mooy xam-xam bu ne ci yàlla alquran day wax ne la science divine wattaqullaha wa yuallimukumullahu ragal na yàlla yàlla jàngal leen am déet wattaqullaha wa yuallimukumullahu allahu akbar léegi léeg yàlla jàngal ab jaamam ci xam-xam lu ko benn professeur jàngalool. extraordinaire extraordinaire merci beaucoup léegi Moussa dafa am professeur ndax professeur bi mooy Jibril yàlla koy jël di ko jox mais kii xaddir mii fan la jàngee ku ko jàngal kenn mënta wax ne mooy professeur am mais yàlla jox na ko ci xam-xam lu Moussa di daw di ko uti di jàngat ci moom. kon nit mën na xam lu mu jàngul. waaye sëñ bi lu nit di xam lu mu jàngul waaw wa taqullaha wa yuallimukumullah nit di xam lu mu jàngul. bu fekkee li nga xam ci li nga jàng rek nga yem mais xamoo dara di yow da nga xam dara xamoo dara dama lay wax lu fekkee lañ lañ la doon wan ci tableau rek fa la sa xam-xam yem xamoo tus yàlla seen doom <laughs> xam nga li ko def mhm. euh, xam-xam saa léeg-léeg caabi la xam nga yàlla dafa jël xam-xam def ko muy benn bunt macha allah école beeg yi ñu lay woon mooy caabi ci dañ lay woon outil yi ngay ubbee bunt bi hmm. su bunt bi xasee ubbeeku mais sëñ bi foo ci yem rek ci yow la professeur yeeg enseignant yeeg yëpp dañ lay woon nuy ubbee caabi mais jàngaluñ la xam so obé buntu bi ci bir lool nak sa yitte sa yitte rek la sa yitte sa yitte ak fo ci mantayam rek mo waral euh manam mo waral qala lahu musa non non ma rahmatan min indina wa alamnahu min laduna ilma ok yàlla daf ko jox ilmu laduni ilmu laduni moy xam-xam bo xamné yàlla xam-xam bi ci mom la ne ci mom yàlla mu tib xam-xam bi jox ko imam puy imam puy xam lu ko benn professeur jàngalul ba pare raw ñëpp loolu mooy ilmu laduni moom la yàlla jox xadir te loolu ragal yàlla mën na ko joxe non ragal yàlla koy joxe wattaqullah wa yuallimakumullah ndeysaan kon bu bëggee xam da nga mooy professeur bi gën a gaaw ragal yàlla waaw loolu nag yàlla cër bu yàlla dimbalee may ko nit la yàlla ñu ko yàlla may moo tax weeru koor laallakum tattaqun weeru koor dafa am solo laallakum tattaqun weeru koor dafa am solo boo wooree da ngay gën a yeewu gis nga gis nga tey boo wooroon di jàng li ngay jàng da nga koy gën a da ngay am intelligence bien sûr sa xel day ñor weeru koor dafa baax li ciy njëriñ bul xam nu mu toll ci weeru koor imam léegi nag moo moo tax mu ne rahmatan ataynaahu wa rahmatan min indina wa allamnaahu min laduna ilman bi mu demee ca xeer wa moom Moussa fekk na fa wajada fa wajada abdan min ibadina fekk na fa ab jaam ci sama jaam ñi la yàlla wax jàmb nu mu tudd xadir lan la ko yàlla jox ataynaahu rahmatan min indina yàlla mu ne jox naa ko jox maanaam léegi jox naa ko xam-xam boo xam ne xool min indina xam-xam boo xam ne ci man la bàyyee ko man yàlla kon xadir yàllaa ko jàngal directement wa allamnaahu min laduna ilman ma jël xam-xam bu ne ci man ñu koy tuddee ilmu nii ma joxaat ko ko kon Moussa trouvé na xadir Moussa xadir mam doon seet ponkal mam doon seet bam ba mu fëggee dënd ba ne ñu ne ko kan moo ëpp xam-xam mu ne man ñu ne ko déedéet yàlla ca majmaul baxre ne yàlla am na góoru yàlla gu fa ne soo demee mu jàngal la mu jóg di ko wër ñewne ci majmaul bahrayni ànd ak Yusuf ibn Nun gàddu li nga xamne mo doon jeen wa yàlla non nako fi nga fàtte jeen ba fa ngay dajje kilifa gogo bi ñewé di nopp lu jeen bi roccee ku daw yonent bi neena ma'ul hayat la jeen wi nan deki wat daw dugg ci biir géej gi sallallahu alayhi wasallam ma'ul hayat ma'ul hayat way ma'ul hayat xayaat yonent wax nako ci hadith yi ndeysan legi nak kon su ko eh qala lahu musa musa bi mu ñewé nak ba yeksi ci khadir mu commencé nag ndeysaan doon ab taalibe nag doon am ndongo daara mu dalaat daara xam nga ku jibril doon jàngal yàlla di jox jibril jibril di la jox nga am téere wu mel ni tawraat nga fëgg sa dënn yàlla ne na kan moo am xam ne kaw suuf maa fépp xam-xam yàlla ne ko yow xamoo li xew kaddal ba dina kaay ma yóbbu la ci sama jàmm dalal la ba boo xam ne kenn xamu ko subhanallah allahu akbar moo tax Yuusuf moo tax Moussa bi ñëwee moo ne xaala lahu Moussa Moussa dafa ñëw wax xadir ne ko hal attabiuka ala an tuallimani mimma ullimta rushdan gis nga ko dama ñëw pour nga topp la pour nga jàngal ma ci li la yàlla jàngal ndax ma mën ciy jëlee am njub rushdan rushdan la waxul ilman rushdan la droiture waaw la droiture xam nga xam mu mënoon na ko wax ne ko hal attabiuka ala an tuallimani mimma ullimta ilman mais non mais ala an tuallimani mimma ullimta rushdan ba waxul waxul xam-xam foofu parce que ci xam ngay sukkandiku pour mën a jub boo xamul do jub waay saa waay xam-xam moy moy bas moo yonenti bi yalla ne ko iqra parce que njang mi ci le lepp ne yalla waral musa nak ñew commencé laj hal attabiuka ala an tuallimani mimma 'allimta rushdan est-ce que d'accord nga ma don sa taalibe nga don sama professeur ah Musa, demandé nako de xam nga da ngay demande nag wax dëgg bind demande ngay demande yefi do ñew rek songu ko di lol kaddu demande la musa def ci khadir pour mu nek professeur mu nek élève hal attabiuka est-ce que d'accord nga ma topp la ala an tuallimani ci kaw nga jàngal ma ci kaw nga xamal ma mimma ullimta ci li la yàlla jàngal rushdan ba ma man ci xamee ba jub tegee ci yoon xam nga demande la Moussa posé foofu hmm? euh, lan la ko xadir tontu xadir def na ko xaala innaka lan tastatia maaya sabran soo àndeek man doo mën a muñ doo mën a ànd ak man mënoo maa dékku mënoo may dékku samay li may sama xam-xam fi ma koy teg sa xam-xam yeggu fa du logique de déedéet du logique mooy li nga wax rek waaw xam nga école un plus un égal deux lay jàng waaye école un plus un la xam égal deux te xadir fi muy dundee du un plus un soo ko fa xoolee rek daalu li muy def yëpp ci baatin la koy defee ci Moussa da koy àtte ci zahir un plus un égal deux xam-xamu baatin la yor déglul fii ni nga ñëw hmm? est-ce que qaala innaka lan tastatia maaya sabran da ko wax soo àndeeg man doo ma a ndax yi may def amalo sa niveau intellectuel yeggul foofu te Moussa Jibril la ko jàngal de Moussa wax yu la yónnent la Jibril la ko jàngal mais bi mu ko demandé ne na ko sa niveau intellectuel mënut a dékku xam-xam bi ma lay jàngal. allahu akbar allahu akbar. il te faut des bagages. non non doy la yor. xadir yan bagage la yor. innaka lan tastati maaya sabran wa kayfa tasbiru ala ma lam tuhit xubran loolu la ca teg. mooy naka nga mën a muñee loo xam ne sa capacité d'intellectuel yeggu ci. wa kayfa tasbiru ala ma lam tuhit bihi xubran gis nga ko loo xam ne sa euh, capacité d'intellectuel yeggu ci boo ko gisee kooku noo ko mën a tekkee te man yi may def sa de capacité d'intellectuel mais yeggu ci yaa ngi dégg. dëgg la xaala Moussa ne ko Moussa ne ko non no no Moussa dafa yeewu de. dëgg la jigéen ndeysaan sàkkukatu xam-xam. waaw da ngay yaru da ngay teey xam-xam da ngay négocier bu la ko nit di jox da ngay négocier ba jot kon kaate man li dor waaw kay kon kaate man li dor wal boosa. waaw tanal qasdan wa taaloo jële ya mutaallim moom la jëfandikoo fii moom Moussa sa tajuduni insha allahu sa tajuduni insha allahu sabiran wala aasi laka amran merci beaucoup bi ko xadir ne ko soo àndeek man yi ngay gis ak yi may def sa niveau d'intellectuel mënu du ko mën a tekki doo xam li may def lan la Moussa gis nga ndeysaan ci nooy gi ak bëgg xam-xam gi mu ne ko non sa tajuduni insha allahu sabiran wala aasi laka amran bu soobee yàlla la ko xool allah allahu bu soobee yàlla sa tajuni nii dinaa nekk ak yow saabiran di muñ lu ma gis dinaa ko muñ walla aasi lakka amran te lépp loo ma digal dinaa ko def du ma la du ma mooy sa ndigal mais nit ki sëñ bi booy sàkku xam-xam ak nit noonu la war a demee da ngay muñ coono yi kon kon kon man lu dori wal bu sa yaa ko wax léegi te it nag sa sëriñ bi lay jox xam-xam lu mu la digal def ko ja sàkku xam-xam dafa am yoon uyu ma sakku xam-xam dafa am yoon boo xam ne boo ci jaaree di nga am xam-xam mu barke dina am yoon boo xam ne boo ci jaaree man ngay am xam-xam xoolal mais du barke doo ci jëriñu dëgg la dëgg la bi sakku xam bi ngay xam ci sa diggante ak sëriñ ma maanaam léegi pour nga maanaam pour mu barke moom la Moussa wax nii xadir sa tajidu nii insha allahu sabiran wala asi laka amran am déet coono bi may dayee yooyu dina ko muñ mais da ngay muñ di hmm? xam nga ci teggiin yi sàkku yi nit di sàkkuloo nit xam-xam ndeysaan ñu ngi koy wax mm-hmm. boo demee ci wa kon eh, wakun mutajallidan Sëriñ mm-hmm. Tuubaa wax na ko foofu ci kun katiman ndeysaan wakun mutajallidan nee na da ngay dëgër xataa yazun na naasu annaka mun'imu da ngay dëgër ba nit ñi yaakaar na milliardaire nga te amuloo dërëm mais ndeysaan yaa ngi sàkku xam-xam mais eh, voilà da ngay muñ moom la ko wax ne ko sa tëjinu insha allahu sabiran wala ansi laka amran dinaa muñ te loo ma wax dinaa ko def. étudiants yi war na dégg lii étudiants yi waaw étudiants yi moo tax ma la wax ne la sàkku xam-xam dafa am yoon mais di sàkku xam-xam ki lay wutal xam-xam nga yeb ko yeb ko respecté wuloo ko lu la neex wax ko sëñ bi xanaa budut nit ki xam-xam bi ngay naw. ndeysaan ndeysaan waxuma nit ki may xam-xam bi ngay respecté boo respecté xam-xamu sa sa professeur yàlla jël ci xam-xam bi jox la ba pare barkeelal la ko. Hmm, noonu la gars yi rawee day barke. boobu waaw. xam nga di nga jàngal nit ngay ne même diplôme nga gën koy barkeel. mbir la mbir la na ngeen ko wutee moo wutee. kon ki ki ëpp tarbiyu. waaye da am tarbiya waay sakku xam-xam da ngay tarbiya waay tarbiya. yonent bi nee na man allamaka harfan fa huwa mawlaak wala alim na abi talib. ndeysaan ki lay jàngal xaraf. mooy sëriñ mooy sa sëriñ sëñ bi. fa huwa mooy sa kilifa mooy yor sa lépp mooy sa kilifa moo sa lépp. mooy sa pété. mooy sa pété. kon su ko defee ki yor xam-xam bi nga koy wut ci moom dafa am comportement moom la ko jàngal noonu. ستجدني إن شاء الله ولا أعصي لك أمرا دينا مون دينا مون لوما غيس دينا كو مون تي لوما واخ دينا كو ديف قال كي واخ خضر واخ موسى نيكو فإن تبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا موي سوما توبي دغ لا ماي ديف اي توج توج لو غيس بول ما لاج فيك نيتلو لوما مانام لي خيو لو غيس نوبي رك نيل رك نيل رك fa ini tabaatani soo ma toppee. waaw fala tas al nii bul ma laaj an shay in ci tus hatta uhdisa laka minhu zikran feeg jogo ma di la ko firil ne la lii ak lii ak lii la noppi rek loo gis noppil. yow topp ma te noppil topp ma te loo gis noppil bul commentaire bul commentaire xanaa lu ma la wax ne la lii ak lii moo tax. no comment no comment àndal ak man ci no comment merci beaucoup. est-ce que. léegi fan talaqa ñu dal di d'accord nag Moussa ak Khadir ñu dal di d'accord léegi fan talaqa ñu départ ñu ngay dem ñu ngay dem. xatta isa rakiba fi safina ñu dem ba mu yàgg ñu yéeg ci benn gaal benn bato bu mag ndeysaan musa ak Xadir ak Yuusuf ibn Nun xale bu góor ba ñoom ñëpp ñuy dem di dem di dem ba mu yàgg ñu yéeg ci benn gaal dañoo waroon a traversé fi safinati nee na xaraqaha ñu toog tuuti Moussa toj gaal gi Xadir toj gaal gi hmm. waaw xaraqaha toj gaal gi hmm? te ñoom ñu ndox mi waaw ñoom ñëpp a ngi ci biir gaal gi ñoom ñëpp a ci biir géej gi xam nga def noonu Moussa fa ini tabaate nii fala tasal nii an shay'in hatta uhdisa laka minhu zikran boo ma toppee loo gis noppil loo gis fekk firi lu ma la ko noppil léegi ñu départ d'accord nañ départ nañ léegi dugg nañ ci ga dugg nañ ci gaal gi ñu dugg ci gaal gi xadir toj gaal gi te te gaal gaa ci ndox mi toj gaal gi qaala Moussa ne ko Moussa ne ko axaraqtaha li tuxriqa ahlaha laqad jita shay'an imran ah da nga ko bëgg a toj pour ñii ci biir lab yow li li nga def ëpp li nga def ëpp na ci ah dugg ci gaal nga toj gaal gi xanaa da nga bëgg waa gaal gi lab xaala hmm? <laughs> xadir ne ko alam aqul lakka innaka lan tastati maaya sabran waxoon naa la ne waxoon naa la ne boo ñu àndee li ngay gis doo ko mën a muñ waxoon naa la ko effectivement waxoon ko dëgg la nga waxoon na ko mm-hmm. noonu la ko mënoo ànd ak man parce que li ngay gis doo ko mën a muñ sa niveau d'intellectuel du xam li may def lan la Moussa ne ko non dinaa muñ te loo ma wax dinaa ko def. ñu d'accord ñoom ñaar ñu dugg ci gaal gi. Xadir toj gaal gi Moussa ne ko da ko bëgg a toj pour pour waa gaal gi lapp wala lu xew ah oui il faut mu la. parce mais ñun man mënu may dugg ci gaal ñun ñëpp ci gaal ngay toj gi man bu doon man sax man wax ma wax li waa ji parce que gaal bu boo ko tojee ndox mi dugg ci ñun ñoom ñu dee di. c'est normal. <laughs> foog moo foog nga réagir moo tax mu ne ko. da nga koy toj pour waa gaaj gi maanaam léegi maanaam léegi axaraxtaha li tuxriqa ahlaha laqad jita shay an imran mooy da nga ko bëgg a toj pour labal waa gaal gi sa mbir mi nga def ëpp na di yaa ngi def lu ëpp di di catastrophe laqad jita shay an imran li ngay def c'est catastrophe merci beaucoup loolu la ko Moussa wax qaala xadir ne ko alam aqul laka innaka lan tastati maaya sabran waxoon naa leen ne bu ñu àndee wallaay naa ne bu ñu li ngay gis doo ko mën a doo ko mën a tekki moom zen waxoon na ko ko perturbé wul déedéet waxoon na ko waxoon naa leen ne li buñ àndee yi toj toj yi may def mënoo koy attan waxoon na ko ko di xel du ko nangu xaala mu ne ko laa tuaqis ni bi ma nasiitu wala turxiq ni fii amri osran Moussa Moussa waaw Moussa rëccu ne ko rëcc maa ngi rëccu baal ma baal ma baal ma maa ngi ah, rëccu damaa fàtte damaa fàtte laa tuaqis ni bi ma nasiitu dama fàtte ma fàtte ne waxoon nga ma ko bul ma jàppee li ma fàtte wala turxiq ni min amri osran bul ma kéréyel ci sama mbir ay jafe-jafe bàyyi mu sedd bàyyil mu sedd <laughs> maa ngi jégalu bàyyil mu sedd waxoon nga moo ko mais dama fàtte parce que yëfu nit la bàyyi mu sedd mhm. euh, ñu demaat kon bàyyi na mu sedd ñu déparaat waaw bàyyi na mu sedd mais àndaat nañ ñu départ ñu ngay demaat fantalaqa fantalaqa ñoom ñaar ànd nañ di dem hatta isa hatta isa laqiya xulaaman fa qatalahu eh, waaw ñuy dox moom yàgg ñu daal di gis benn xale bu góor bu rafet خادر دال دي راندي خالي بوغور إيه، سبحان الله خادر مو راندي واي مو راي خالي بوغور بي فقتله مو راي خالي بوغور بي كرف كو دارا داف كو غيس رك راندي ها <laughs> أه؟ قال موسى نكو اقتلت نفسا زكيه بخير نفس لقد جئت شيئا نكرا موسى مي وخاتي باجي باجي وخ بلي توج توج بيم ديفون دا غنا غراو دي ندافع غار لو بوتون وخ غال لا لا بوغوج بي خالي بوغور مو داجيك موم رك جام كو باغ بي فاتو سبحان الله un innocent tué Moussa ne ko mais aqatalta nafsan bi xayri nafsin yow. tu tues un innocent comme ça waaw di rey ay innocent boo xam ne kii deful dara ah. ah laqad ji'ta shay'an nukran li nga def kenn kenn rafetlu ko. waaw li sib nan nga def nga crime li nga def crime la. ça c'est un criminel. waaw parce que rey crime la Moussa ne ko yow li nga def crime la. xam nga ba léegi li mu waxoon na Moussa ne ko bu ñu àndee atunoma yaa ngi dégg. extraordinaire atunoma li ngay gis doo xam li mu doon. xam nga toj na gaal gi Moussa wax. dëgg la mu ne ko waxoon naa la ne. soo àndeek man li ngay gis doo ko mën a xam. dëgg la Moussa ne ko maa ngi jégalu laa tu'aaxidhnii bimaa nasiitu. dëgg la wala turhiqnii min amrii usran. Hmm. jégalu naa waa ji d' na léegi fan talaqa ñu départ ñoom ñaar. Hmm. dem ba yàgg ñu gis xale bu góor waa ji rendi xale bu góor bi. Moussa ne ko mais aqatalta nafsan bi xayri nafsin laqad ji'ta shay'an nukran yow mbir mi nga def ni kirim la rayaati. قال واجنكو قدر نموسى ألم أقول لك خنا وخو ملا إنك لن تستطيع معي صبرا بني عندي لغي جيس دوكو منو مني هو نالوكو دومو ديكو هو نالوكو بي موي دزين فوام واحد موسى ماتول ساق طالب موسى ماتول ساق طالب خدر والله تالله ماتول ساق طالب ماتول ساق طالب خدر جيس نغي لي يالله يوان موسى يومي تخو نما أبو خم خم جاد نبي يالله بولي لكو خم نمو توكو ساق طالب الله أكبر ماتوكو طالب Parce que li waji مونتا خام لان لا كون واخنا كوكو فوفا خالا مونوكو كو ان سالتك عن شيء بعده فلا تصاحبني آه قد بلغت من امري عسرا موسى نكو بوني اندي سوما لا لاجيتي دارا داخما فريمون خام لاج نكو دو فوا دو فوا جيغولو دو فوا تروازيم مونوكو بو نياتي داخما parce que boba nak vraiment. bu ñetté dakk ma xolal qala in saaltuka an shay'in ba'daha suma la laajati leneen gannaaw ñaari question yi fala tu sahib nii dàq ma. dakk ma ci école dakk ma ci école bi. lu tax xat balaxta min la dunni usran parce que da nga dama la sonal. parce que j'ai pas le niveau. oui aw ma aw ma niveau li nga waxon deug la aw ma niveau pour ànd ak yow. allahu akbar. hmm léegi fan talaqa ñu départ troisième fois. kon bayina mu sedd. bayina mu sedd ñu andat ñetti yoon. tey mu troisième fois bango. aywa nañ dem. léegi hatta isa ataya ahla qaryatin. waaw istatama ahlaha mooy ñuy dem ba mu yàgg ñu yegg ci benn dëkk xam nga ñoom sànni woon nañ seen seen seen jën ba réeroon na seen añ ba réeroon na réeroon na kenn dox ma booba lañ ko jëlekk pour pour man sàkku xam-xam da ngay xiif ndeysaan mais c'est vrai hein booy sàkku da ngay xiif da ngay ñeme xiif wax na ko ci nee na doon na wax ni eh, xaw ma lan maanaam maanaam maanaam maanaam maanaam bul ragal xiif booy sàkku xam-xam da ngay nangoo xiif booy sàkku xam-xam di nga sonn booy sàkku xam-xam di nga gëmantu gis nga Moussa ba jënu ba jën wa réeree la gëj a lekk mais mu ngi ànd ak mu ngi ànd ak mu ngi ànd ak xadir ñu ngi dem mu ngi def ay toj-toj boobu lañ gëj a lekk léegi nag troisième fois bi bi ñu yegsee ci dëkk bi mhm. ñu ñu ni ñu demandé lekk ci waa dëkk bi istataama ahlaha ñu demandé waa dëkk bi pour ñu may leen ñu lekk yaa ngi dégg istataama ahlaha léegi fa abaw an yudayifuhuma waa dëkk bi lànk ne du leen dalal ne leen ganale ñoo lànk duñ leen ganale Hmm? léegi nag fa wajada fiihaa jidaaran yuridu an da dëkk bi ñu fekk dëkk bi ñu taxaw ñaan waa dëkk bi lekk waa dëkk bi bañ waa ji Moussa ak Xadir moo dañ gis benn miir bu rëy miir buy waaj a daanu miir buy waaj a daanu fa aqaamahu Xadir jubanti miir bi. def teraanga ñoo xam ne la gàntal. defal teraanga ñoo xam ne dañ koo gàntal. allahu akbar Moussa ne ko mais yow xool yow ñu ngi ci dëkk bi dox nañ ba bëgg a dee ñu ngi xiif la ñaan ñaan leen lekk ñu bañ. seen miir bi di waaja daanu waa dëkk bi kenn mënu koy jubbante nga jubbanti ko. mais laaj leen pay ñu jënd ci lekk nañ la fay. law shiita law shiita la taxasta alayhim jëlal pay ñu lekk ñu jënd añ. wàcce leen waaw waaw mais xoolal Moussa li ko dal yëfu nit la bu doon man looloo may dal dama dox dama xiif dama bëgg a dee. ñëw ci dëkk bi ñaan lekk waa dëkk yu bañ. waaw waa dëkk yu bañ nañ. ne duñ ñu jox lekk du ñu jox ñu naan. dëkk bi am na fi miir boo xam ne mu ngi waaja daanu ci seen kër yi. Mhm. waa dëkk bi mënuñ koy jubbanti yow nga jubbanti ko ma ne la nañ la fay buñ la fayee ñu jënd ci lekk ah law sitta la xasta alayhi ajran te nag si logique xam nga mu xam nga Moussa li ko wax logique na. dëgg la hmm? léegi nag euh, yu day fa fa ne léegi léegi euh, léegi léegi ah, léegi an an yanqada fa axamahu qaala law si'ta la taxasta alayhi ajran qaala ca la ko xadir wax ne ko hmm. haza firaaqu bayni wa bayni mooy nañ tàggoo maag yow fii nag lay tàggoog yow firaaqu bayni wa baynak haza firaaqu bayni wa baynak sama digganteeg yow suñ tàggoo tey fii lay yem xoolal ci ñetti ci ñetti spectacle benn bu ci ne la ma waxoon Moussa li ngay gis doo ko mën a firi nee na Moussa fii nag lay togg ak yow mais nag kaay ma firi la li may def te mënoo koy firi kaay ma wax la li tax ba koy def merci beaucoup xam-xam a ngi ñëw mu ngi koy jàngal léegi hmm, du ma du ma lay yeewi noonu nag duma la lay yeewi dama lay jàngal li ngay gis te mënoo koy firi ma jàngal la ko bàyyi la nga dem du ma la bàyyi ci lëndëm moo tax ndeysaan borom xam-xam bu mag nee na mu nee na xadir dafa yàkkamti bu teyoon bu dinañ jàng lu bëri dinañ jàng lu bëri waaw. ci xikma ci xikma dafa yàkkamti Moussa mooy meebu kon kuy jàng waru du yàkkamti non teey xam-xam doo ko am ci yàkkamti. ngay am ci dal ci patient ci dal. Moussa dafa yàkkamti mais Moussa yi point yi xaadir xam loo ko ko bu yàkkamti wutoon xoolal dina xam lu ëpp lii ñu ne Moussa xañ nañu xam-xam parce que dafa yàkkamti. ndax ñett ñett ñett rek la ko laaj. ñett yooyu moom la ko wax ne ko haza firaqu bayni wa baynik sa umbi uka bi tawili ma lam tastati alayhi sabran merci beaucoup comme que kaay ma jàngal la point yi ngay gis te attanoo ko te mënoo koy dékku kaay ma jàngal la li tax ma koy def lan la yaa ngi dégg. Mhm. mu ne ko ama safina defe naa moo njëkk woon de. gaal gaal ga mooy gaal ga na xaroon moo jiitu woon di. muy yéegaat ci kaw ama safina. kon jàngalekat day am méthode da ngay yéeg mu ngi ko koy firil. day am méthode da ngay commencé da ngay yéeg ca kaw di wàcc. ama safina parce que moo njëkk am. gaal ga ma tojoon. gaal ga woon gaal ga woon. ndeysaan. Hmm? fa kaanat li masakina yaamaloona fil baxri ñaari xale yu góor yu seen bàyyi dee ñu nekk ay miskin ñoo moom gaal gi teg ko ci biir géej gi yaa ngi dégg fa aratu an aibaha ma bëgg a toj gaal gi yàqu ko wa kaana waraahum euh, malikun yaaqusa kulla safinatin xasban dafa am ñaari xale yi miskin yoo xam ne seen papa dafa dee bàyyee leen gaal gi ñu jël gaal gi di ko liggéey ci biir géej gi te am na buur bu ne ci dëkk bi mbooleem lu xale yi liggéey ci gaal gi buur bi ñëw nangu ko moo tax ma toj gaal gi mais Moussa mënul xam li yëpp. kat yi man Moussa mënul xam li yëpp. mënu ko xam te waa ji waxu ko ko xam nga waxoon na ko noonu la ko bul ma laaj dara te fekk leeralu ma la ko loolu ca ca départ ba loolu la ko waxoon bul ma laaj dara te leeralu ma la ko. mu ne gaal gi mu xar ñi ko moom. Mhm. dañu ñàkkoon. li masaakiina yaamaloona fil baxri ay miskin yu ñu jël gaal gi di ko liggéeyee ci géej gi. yaa ngi dégg kon gaal gi mu day daw dépense. day daw dépense. ndeysaan gaal gi la ñuy dundee. te am na kilifa gu nekk ci am na buur boo xam ne dafa soxor lu xale yi liggéey ci gaal gi mu nangu ko koo ko lay xeexal mu xar gaal gi teg maanaam mu toj gaal gi yaa ngi dégg yaa xus na ko la saveratin xasban mu ne ko waa amal xulaamu wante xale bu góor bi ñu àndaloon ma gis ko ma faat ko ma rey ko xale bu góor bi ma reyoon lu waral loolu fa kaana abawaahu mu'minayni xale bu góor bi ñaari baay yaa ñaari woy juróom yi ay jullit lañ yu baax a baax a baax ndeysaan fa xasina an yurhiquhuma tuxyaanan wa kufran te xale bu góor bi su màggee yéeféer la te bu màggee rey ñaari way juróom yooyu nga xam ne ay jullit yu baax la ñu ma éliminé ko mu bàyyi ñaari waajuram yu continué ma éliminé ko moom moo tax ma rey ko ah fa aradtu an fa aradtu an yu yubaddilahuma rabbuhuma xayran minhu zakatan zakatan zakatan wa aqrabu rahman ma bëgg seen waajur yàlla remplacer yeneen doom yu bokkul ak xale bi ñu gën a baax te ëpp yërmande moom ma éliminé ko xam nga dama lay waxal xale bu góor bi su màggoon si nga su ko waaji reyutoon day rey ñaari waajuram daf leen di éliminer parce que moom kaafir la moom moom yéeféer la te ñaari way juram ñaari jullit lañ xam nga man mënuma ko xam Moussa mënu koy xam Xadir nag moo ko xam moo tax mu éliminer xale bi biñ ko lu tax mu ne bu ma ko éliminer moom mu ma maanaam mu jógee fi ba ay way juram continuer dinañ jur yeneen doom yu bokkul ak ñoom yoo xam ne dinañ dimbale seeni way juram ba pare nekk ay jullit yow loolu da nga ko mënoon a xam moo tax ci baatin lay def moom ci baatin lay def yow ngay firi ci zahir lu sotti sotti kay beneen bi lan waa amal jidaaru miir bi nga xam ne dama koo jubbanteel waa dëkk bi Moussa mhm. ngi déglu de dëgg la miir bi ma jubbanti ci dëkk boo xam ne dañ leen a ñaan dañ leen ñaan lekk ñu bañ ne duñ ñu ko jox mhm. ma jubanti miir bi dem nga ne ma law chita la la taxasta alayhi ajaran mhm. bu la neexoon nga fayeeku ñu jënd aj te fayeeku ma amal jidaaru miir boobu hmm? fa kaana li xulaamayni yatiimayni fil madina ok dafa am ñaari la xale yoo xam ne seen jur ndeysaan bi muy waaj a faatu dafa woo xale yi ba xale yi ñëw mu jël alal ji xale yi xale yu ndaw lañ mu jël alal ji ànd ak xale yi ba ci ron miir bi góor gi gas ko jël alal ji denc ko fa ne xale yi bés bu ma faatoo heure bu ngeen màggee alal ji ñëw leen mu ngi nii te bu miir bi daanoo nit ñi for alal ji te xale yi du njariñoo hmm. moo tax bi miir bi waaj a daanoo xoolal ma jubbanti miir bi ngir xale yooyu ëllëg seen maanaam maanaam maanaam maanaam pour ngir xale yooyu ëllëg pour seen alal seen a seen alalu bàyyi bañ a réer xale yi lay protéger xale yi lay protéger ak seen alal moo tax mu ne ko wa amal jidaaru fa kaana li gulaamayni yatimayni fil madina ñaari xale yu jirim ñaari orphelin yu ne ci dëkk bi wa kaana tahtahu kanzun lahuma te seen bàyyi dafa gasoon seen alal ji def ko ci roon miir bi wa kaana wa wa kaana abuhuma salihan te nag seen bàyyi ndeysaan góor gu baax la woon gis nga kilifa bu baaxee dama lay waxal. Mhm. Euh, maanaam nitu yàlla ku baax yàlla balay jëriñ ay doomam moom mu jógee fi moom. Mhm. nitu yàlla bu baax nitu yàlla bu baax. maanaam ay maanaam maanaam njabootam njabootam gannaawam la leen yàlla di teral. du ko fekkee hmm. xam nga xale yi déglu ma wax la mu ngi nii rek tegal sa baaraam. alxuraan moo ñuy jàngal. xam nga def na ko wa amal jidaru xolal mir bi nañ arrière wa amal jidaru mir bi fa kaane li ghola mayni yati mayni fil madina dafa am ñaari xali góor yo xamné ay orphelin lañ yu nekk ci dëkk bi wa kaana tahtahu kanzun te mir bi sen bàyyi dafa jëlon alal ji gas ko gas ko ci ron mir bi dencal len ko fa benn trésor waaw benn trésor bu len sen papa defal ci ron mir bi wa kaana abuhuma salihan parce que sen papa nit ku bax la la lay wax ni sen papa ku bax la sen papa ku bax la sen papa bax gi bax motax yàlla yebal khadir alal ji dénkoon ay jim dencaloon ay doomam ci ron miir bi gannaawam gannaawam góor gi newu fi de. ndeysaan moo génn àdduna bu yàgg. génn génn mais yàlla protégé na ay doomam ci xadir ba miir bi bëggoon a daanu alal ji dem yàlla indi xadir mu jubbantiwaat miir bi alal ji ne fa xale xale yi bañ màggee dañ ñëw gas ron miir bi génnee alal ji leen seen bàyyi dencaloon. subhanallah moo tax ma ne la yàlla dëgg dëgg dëgg dëgg bala yàlla jëriñ sa njaboot sa gannaaw lay doon loolu la waxoon. wa kana abuhuma salihat mu ngi nii wa kana abuhuma salihat hmm? fa ara eh, eh, eh, fa arada fa arada rabbuka an yabluqa ashuddahuma merci beaucoup seen bàyyi dafa baax te yàlla dafa bëgg xale yi màgg ba doon ponkal man a jëfandikoo seen alal te bu meer bi daanoo waa dëkk bi sàcc ji xale yi suñ màggee dañuy tubaranke gis nga xale yooyu ne leen yàlla dimbalee ci xadir looloo taxoon ma jubbante miir bi Moussa mënut a comprendre loolu. mënut a parce que kii ci baatin lay def ci Moussa ci sahir lay atte est yaa ngi dégg. kon boobu dimension bu am solo dimension bu am solo la. mooy mooy baatin. non ba baatin. tout n'est pas rationnel. non non non xam nga baatin bu ma koy def yow nga may àtte ci zahir day doy waar parce que lay rafet ca baatin dafay ñaaw ci zahir parce que rey xale bu góor ba dafa ñaaw ci zahir di. bien sûr mais ci baatin c'est très important. daf ko rey pour sauver ay waajuram. bu reyoon ay waajuram nit ñu baax lañ ñoom dañuy faatu te moom bu màggee yéeféer la. kum kum jur yéeféer la. te mom bu reyee ñaari way juram mom mu faatu way jur dinañ juraat ay doom yo xamni doom yu bax lañu ñuy doon xam nga mo sa Moussa ta xam loolu mo waral fa arada rabbuka an yabluqa ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbika loolu yep yërmande bo xamne mo ngi bàyyi ko ci sa borom wa ma faaltuha an amri ne ko yëf yu dumay def rek ki lima neex mom khadir mo ne mo sa dumay def rek ki lima neex quoi wa ma faaltuha an amri luma def luma def ndigal luma def ndigalu suma borom la allah du ma def lenn ci sama ndigalu bopp taw yaa ngi ma yedd rek mu ko yedd rek ndeysaan lu ma faaltuhu an amul dara lu ma def ci sama sago si bopp lu ma def yàlla ma ko déy mais ci baatin lay def doon na sa xel nangu ko yow non sa yow ci sa xel ngay atte sa xel du ko nangu moo ngay gis ne ndeysaan nit ki léeg-léeg gis nga léeg-léeg euh, yàlla moom xam nga yàlla amul xol ndeysaan yàlla amul xol dëgg la moom li muy def yëpp deful ko ci sentiment Moussa moom ci sentiment lay sentiment amul émotion lu tax nga rey kii xale bu juddoogoon nga rey koog ah, miir bi bu la neexoon moom Moussa ci sentiment lay demande kenn ak ci ndigalu yàlla la léeg-léeg mu traversé sentiment moom allahu akbar ah ndigalu yàlla day traversé sentiment yàlla ya xam nga yàlla duy liggéey ci sentiment allahu akbar yàlla léeg-léeg duy liggéey ci sentiment di sa parce que ci xikmaam lay liggéey xikma ak sentiment du benn xëkk ma du benn di. moo tax nit am lu ko dal mu metti muy jooy. muy jooy sentiment ko tax a jooy mais bu bu la ko dal bu wéree xéewal gi dina wax ne bu ma yeboon fukk dal ma ci yàlla sedd na ko. kon yàlla léeg-léeg du liggéey ci sentiment nga bàyyi ci xel ndeysaan ndeysaan faaltuhu an amri dalika tawilu ma lam tastati alayhi sabran mu ko ñett yooyu moom laa la firil mooy li nga xam ne amaloo capacité d' intellectuel pour man koy dékku ya Moussa hmm? mu ñëw ci يسالونك عن ذو القرنين ذو القرنين موي الكسندر لو غران مي لغي موسى خضر فوف لا يم دي فوالا لغي داني نيو سي لسون نا امام ايوا موسى خضر باسكو بيانتو دا 9 مينوت نيو بي انتن بي ان شاء الله لغي داني نيو سي لسون اي imam première leçon dañ ni Moussa alayhi salaam. Mhm. parce que yaa ngi koy leeral diggante ki nga xamante ni mbokk yi ñu fàttali yéen a ngi seen émission i rajo 90 point 3 tafsir mhm. Quran mhm. Oustaz Taïb Socé moom moo leen di leeral leeralal tafsir bi ci sortu Taha la nekkoon démb tey ñu ngi sortu li nga xamante ni mooy Kahf euh, diggante yonent yàlla Moussa euh, ak histoire bi mu am ci Quran Karim euh, Oustaz Taïb mi ñuy leeral que Moussa génnoon na Euh, di wëri boroom xam-xam boo xamante ni yàlla yedde woon naka ni que bul bàkkoote ci xam-xam boo mhm. xam ndax am na ñoo xamante ni matoon nañ sax taalibe mhm. imaam léegi bu ñu gam-gamlee entre xam-xam bi xel nangu mooy le zahir ak xam bi xel nangu muy baatin mhm. ban ban fan nañ ci mën a yem am na solo parce que am na ñuy xaabaabal ci baatin nag ba wax loo xam nga dañuy wax ne baatin baatin baatin bu dëppoowul ak zahir fa huwa baatil attention bàyyi nga ko rek muy dem loolu maanaam tënk nañ ko. tënk nañ ko dañ ko tënk. bisimilah dañ naan la baatin léeg-léeg bu dëppoowul ak zahir bi nit ñuy xam ci jaamu yàlla gi ñuy jaamul ko nekkatul baatin mais baatil la baatil mooy ay neen dañ ko organisé bàyyiwoo joxuñ nit ñi rek kum neex na ku wax baatin sax te xamul lan mooy ah, baatin. parce na ñuy xaabaabal foofu. am na ku luy baatin. ak kan la jox baatin. c'est très la yor. baatil la yor bari na koo yaakaar ne baatin la am baatil la yor parce que ki yàlla jox baatin moom mooy kan kan la doon d'abord hmm. moom mooy kan moom mooy kan d' abord. ah moom yàlla yàlla waxoon na la. xadir xadir mooy kan. foofu la départ innahu abdun min ibadina salihin. jaam la jaam la fa wajada abdan min ibadina jaam la mu fekk sama jaam ci sama jaam ñi. yàlla mu ne wa wa wa wa. wa ataynaahu rahmatan wa ataynaahu rahmatan. min indina min indina wa allamnaahu min ladunna ilman. yàlla ko garanti yow mi woote baatin yow koo doon lu yàlla fu yàlla jaar ak yow. yàlla fi mu jaar ak xadir war nañu ko xam nañ ni kii lii war na koy man a am na jaar-jaar ko am na jaar-jaar digganteem ak boromam parce que yàllaa ko présenté kon baatin da ngay da ngay ay dafa am fooy jaar waay te di nelaw ba mu neex la nga tëb rek naan ay bàcc nag yu kenn xamul parce que gars yi da ngay ñaan la yow am na démb gént naa la nang dañuy wax rek dañoo nelaw ba bëgg a dee coow li yëpp nelaw bay bëgg a dee la géntuñu dara yàlla seede na ko géntuñu dara xam nga gént gént pour ñu firi ko yow mi gént yaay kan d'abord yow loo doon sa digganteeg sa borom lan la ban cër nga am sa digganteeg sa maanaam ban cër nga am sa digganteeg sa borom gis nga yooyu yëpp daf ciy firi dañ ko ciy firi mais yow xamul dara toog rek naan bon démb dama la gis démb dama la gént nelaw bay bëgg a dee gisoo dara <laughs> amoo benn baatin xool amoo baatin amoo sa digganteeg sa borom jaamuwaloo yàlla ci lu tax yàlla def la ko parce que nag yëf yi yëf yi yombul saa waay yombul waay. yombul daal déedéet yombul ku jóg rek woote ku jóg woote ku jóg rek woote. amoon nga yonent jigéen de. amoon na yonent yi jigéen Sénégal fii ah, waaw xam nga fii ardon xisba waxoon naa la ko ardon xisba malheureusement mooy bu naat la loo fi ji mu sax waxoon naa la ko parce que li ko def mooy principe la nit ñi amul amuñu mabaadi <laughs> boo amul mabaadi sëñ bi vraiment lu ñëw rek këf la malheureusement malheureusement très kon nga gis ne kii kii yàllaa ko présenté mu am comme doon mooy xadir du nitu caaxaan wala yu yàlla dëgg la kon premier te maa ngi lay wax ne la xoolal dundut ci ceeb yu sedd yi climat ci digg gi fa maj ma albaxrin la nekkoon kon nitu yàlla day beru waaye maj ma albaxare ni fa la nekkoon nitu yàlla ngay xeeñ mais ñëw tëdd fii climatiseur yeeg xale yu jigéen yeeg ganaar yeeg yëpp ma bëgg am benn cër ci yàlla mais non non du sotti du sotti ndeysaan waaye du sotti waay sa waay yëf riyaada la riyaada la maanaam sport la dañ koy wut boo waxuma sport da ngay tàggatu da ngay tàggatu allahu akbar moo tax gis nga nit suñ kilifa yi rek suñ kilifa yëpp laa lay wax nii fañ jaar ba am ko xoolal lenn di àdduna doo doo doo leen xool gis ci ñoom lenn di àdduna. looy xemem ci àdduna doo ko xool ci benn kilifa dina ci Sénégal gis ko ci moom te su ko neexoon am ko. moo tax suñu ci naan kun kat li dur leen. waaw mais waaw kun yi man li dur yi. parce que bu tax ma insiste loolu. waaw parce que boo xoolee. dafa ànd ak toroxlu maanaam boo bëggee yàlla foog nga nekk ku mën a muñ. ay lor xam nga boo gisee weeru kor wi ñu nekk. ndeysaan yàlla ne bu jeexee laalakum tattaqoon dafa am riyaada bu ne ci yow bu ñuy def ci koor gi sa waay entraînement entraînement bu mag la ñuy def dañ lay yàlla da lay former dañ tàggat toj sa xol te yëpp yàlla tax subhanallah moo tax boo wooree boo woori yonent bi naa na boo wooree boo woori loo ñaan yàlla may la ko parce que beneen doomu adama nga soo wooree nga numatib sénégalais am nga maqama yaa ngi yéeg beneen nit nga bul considérer sa bopp comme imam puy lambda boo wooree nekkoo imam puy lambda parce que riyaade bi ngay def walal lii bu continue ji lii boo continuer woon quelque maanaam koor gi jeex nga defaat ko quelque temps génn dem fii mais saa waay léegi nga léegi nga toll na xadir yàlla da lay yëg yàlla da lay yëg da lay yënkëmal ay kon jaamu yàlla mooy tax nit ki yéeg jaamu yàlla ak toroxlu ci yàlla ak daw àdduna mooy ci la yàlla yéegal ay nitam ndeysaan ci yàlla waaye bëgg oto ji nga oto yu sedd yii oto yu sedd yii ak climatiseur yi 16 degré ak xale yi yu sew sewaan yi ngay gis nii bagage yu sew sewaan yi doo ci doo yegg ci yàlla de ay gàllankoor la de gàllankoor la way saa doo dem te nag ñun ñëpp loolu la ñuy lijjanti. na nooy na baax na sedd ñëpp loolu la ñuy lijjanti. na nooy na baax na sedd. na baax na sedd na nooy ñun ñëpp ci la ne. de nit ñi sax defe nañ ne ku la gën a sedd la moo la ëpp maqaama ci yàlla. allahu akbar. léegi ci yàlla gi foofu lañ koy xool. ndeysaan ci mbirum àdduna lañ koy atte. ndeysaan te du ci mbirum àdduna lañ koy atte. alors affaire bi da ngay tarbiyu. Eh, du foofu. mag ñi néegi ñax lañ daan nekk néegu ñax dama ne la lenn àdduna boo ko xoolee ci ñoom mais sëñ bi dëpp néegu ñax cër yi am nañ ko ci yàlla waaw man ma bëgg château boo xam ne château léegi nag nit ñi dem nañ ba ku la gën a rafet château lañ wax ne moo la ëpp cër ci yàlla. subhanallah au contraire. bu doon château la Serigne Touba bàyyi château fii Touba. ndeysaan bu doon château la maam El Hadj Malick bàyyi château fii mais amul waaw waaw ah. nee na mënta ñàkk ma ma présenter yàlla samay problème fala budda min shakwa ilallahi kurbati fama liya gayrullahi jaabiru kasrati mooy merci beaucoup xoolal maanaam maanaam jafandu googu ñoom yàlla rek xam nga damay wax ne zawiya El Hadji Malick bi nekk fii ci ponti bi mhm. bu ñu ko doon jaay ndaw uyu ma ko doon jaay ndaw milliard zawiya El Hadji Malick xam nga ko ci ponti bi gisuloo ko ci digg Ndakaaru plateau bu ko doon jaay ndaw milliard moom mu def ko jàkk seddu ko yàlla moo tax ñoom dañoo wutee ñun waay saway ñun ci àdduna la ñuy daw ak ci lix ñoom yàlla jox leen lix ñu delloo ko yàlla zawiya baa ngi fii di saway wala gisuloo ko bien Zawiya yow waa Ndar nga Zawiya bi nekk Ndar Loro. Eh, du Loro yëpp ville kay. merci yëpp ci centre ville bi boo ko doon jaay ay milliards moom mu séddu ko yàlla jàkka xam na li xew. kon imam li ngay wax mooy nitu yàlla foog mu tarbiyu. mais da ngay tarbiyu dafa am fooy jaar. foog nga mokk. oui foog nga mokk ci sa digganteeg sa borom nag. gis nga mbaa ngi daan nañ lekk laax bu amul suukar. ndeysaan. wala bisaab bu amul suukar xam nga laaxu caaxaan. dama koy dégg rek laaxu man def naa kajoor ah kajoor kajoor rek may déglu ñoom xam nañu am ba sonn laaxu caaxaan na ma nag parce que Saloum Saloum buy <laughs> lekk laax bu amul suukar daf koy jaaxal mais dëgëroon na ah mais waa di nga ci jafandu rek sawaay parce que loo xamul nag xam nga loo xamul rek la loo xamul ko woon xamuñu mais bi xam naa ko xam nga laaxu xam nga xam nga xam nga laaxu caaxaan mooy la laaxu caaxaan lañ ko tuddee du doon soow yi nga sunguf bi sunguf bi sunguf bi ñuy karawee karaw bi sunguf bi la ñuy wàññi teg ko fële defar karaw li ba pare sunguf soo suñu wàññi woon moom la ñuy sotti ndox sotti ko ci laax bi du am suukar yàlla seede na ko ak ah, kajoor kajoor yaa ngi may déglu ci télé lay waxee ak ci télé lay waxee ak ci rajo duñ ko weddi bu ñëwee su ma kër ma toggal leen ko da jël sunguf bi laax sunguf sunguf bi ngay jël teg de côté jël araw bi togg sa laax ba pare jël sunguf bi def ci ndox mooy soow bi yëngal ñëw sotti ci laax bi mooy soow bi doo am suukar. loolu mooy laaxu caaxaan. ko yow loolu lekk nga doon. waaye lekk naa ko ba sonn. imam on avance. waaye ci ci ci jàngat yi. Mhm. gis na ne yonent yàlla Moussa da doon wër ki nga xamante ne mooy. xudar mooy xadir waaw. waaw wër gi koy wër ñu jox ay tegtal. ñu gis jën boo xamante ni moom dafa dundoon mu dem ci xamante ni mooy euh, l'eau de la vie. mu mhm. mu dekki ba dem. Mhm. loolu lan lan lan borom bëgg jàngal foofu. waaw te lépp du xel lu xel nangu. waaw xam nga àdduna di nga ci déggee ne yonent yi boo gisee mu euh, def insisté ci hadis boobu yonent bi indi hadis. surtout ci dekkuk jën gi. dekki jën gi. ndax jën gu ñu def ci benn pool. fas yéene yow fu mu fu ñu toogee rek dañuy taal rek teg pool bi lakk la rek commencé la añee. ñu teg tegle ci benn place yàlla nandal la ci maaul xayaat yonent bi moo ñu ko jàngal maaul xayaat la woto tuddee. de la vie merci beaucoup l'eau de la vie. xam nga suñ ndox yi ñuy jaay ndeysaan suñ ndox yi ñuy jaay nii xam nga léegi concurrence ndox mi gisuloo ko. ah façon ndox bu ne. oui. Casamance eh, maanaam présenté wu ma bii nii si woo nangam ak nangam. mais maa ul xayaat moom non siwo mun nga parce euh, wax yëpp siwo siwo dañuy jàngale non yeneen moom sponsor ma <laughs> na sama iftaar bi ah, ma wax siwo <laughs> waaw siwo exemple o oh, siwo ul xayaat bi yonent bi wax nga xam ne ci moom la jën wi naanoon dekkiwaat boobu moom xaw ma fan la ko gaañ indee boobu laa soxla woon l'eau de la vie boobu laa soxla woon l'eau de la vie kon bu ko gaa yi xamoon toj fii boobu laa soxla woon kon ku dee boo naan boo ko naanee wér yonent bi jàngal nañu ko sallallahu alayhi wa sallam nee na la naan daal di dund daal di photo photo génn génn pool ba dugg ci biir géej gi wallahi ndeysaan fi jën bi fi ñuy perte jën ba nag la yàlla waxoon Moussa ne ko foofa ngay daje xadir ay tegtal ay tegtal yu wóor la gis nga nag encore nga gis ne xam-xam boo koy am da nga yow ci coono xoola Moussa coono bi mu am waxuma la sax ànd bi rek waaye pour mu gis rek xadir waa détail yi détail pour mu gis xadir rek coono bi mu am. dem na ba sonn. vraiment sonn coono yi ana ana añ bi. sonn na xiif na ana añ bi añ bi sonn na xiif na réer na gëmentu na jaaxle na. dem na ba jeexal ñu ana ana añ bi mu ne ko dama ko fàtte far tada ala asarihima xasasa ñu dëppaat ñu dellu retourné waat xoolal coono boobu ci lan ci sàkkum xam-xam ci sàkkum saa waay. mais imam nañu jàngat yi. aywa léegi Moussa bi mu gisee Qudar mu commencé que poser ay questions. Mm-hmm. moom mu teel ko avertir. waaw ah, teel la koy avertir parce que. léegi lan la bëgg a dafa xam ne Moussa xam-xamu zahir ci lay dox. te moom lim yor du zahir baatin la. te kuy àtte ci zahir boo àndeek man may def ci baatin xoolal duñ mën a ànd ak yow. mais imam malgré ni mu nga ne ma mën a dékku finalement dékku ko. non doo ma mën a parce que xam na ko dafa xam ne Moussa xam-xam bi mu yor. ma yey na ko quoi ak moom bi waaw da ko yey. yàlla def ci bëgg a jàngale xoolal yàlla daf ci bëgg waxoon naa la ne Moussa Jibril la koy jàngal yàlla koy jox mu ji jox Jibril Jibril di ko jàngal xam nga kii am na professeur bu rëy bu baax. dëgg la mais keroog ba mu bàkkoo la ko yàlla ne ko am naa jaam ñoo xam ne ñu xoolal matoo leen taalibe loolu yàlla ngi ciy jàngale nag ci àdduna bi encore parce que nag fu yàlla def nga yaakaar ne fii rek la maanaam li ñuy tuddee xéewalug yàlla lay sa muxtasar la ñuy wax doon. mooy xéew Sëriñ Tuubaa wax na ko ci ay ab yatam maanaam xéewalu yàlla yàlla tënkut ko ci benn benn place ku ko neex la koy jox ci ay jaamam. daat tasaaroo daa tasaaroo ku ne xaj na si voilà ne xaj na li muy bañ mooy yàlla am lu mu jox imam puy nga ne yàlla lim am yëpp ci imam puy la yem boo ko waxee xamoo yàlla amoo xam-xam yàlla jox na keneen lu ëpp lim jox imam puy yow nag yaa ko xamul feeñee ci Moussa Xodé yaa ko xamul yaa ko xamul yàlla dafa bari le wala yuhituuna bi shay'in min ilmihi illa bi ma shaa waxoon nañ la ko bari le léegi nak bu défé fi nga ne yàlla lim défé fi fii la ko def mais amo xam-xam amo xam-xam xamo yàlla amo xam-xam xamo yàlla loolu moom dafay feeñ moom fekk na am na leneen lu denc loo tegut bët moo ëpp lim la wan loolu il faut ñu ko fii saa loolu am pagay am pagay am pagay am pagay ah. imaam ñu déparé si si logique. moom muy ñëw seen ab gaal goo xamante ni que moom danoo ñàkk. moom mu xam ne am na buur bu ne ci gannaaw moom gaal gu mucc da koy yóbbu. mu bëgg ayibal ngir ñooñu gedd gaal googu mhm. mais euh, lan la bëgg jàngale que maanaam euh, Moussa dafa waroon gën dem dans les profondeurs des choses parce que c'était pas évident Moussa comprendre est imam daanu daanu teg nit euh, dara parce que comprendre ko parce que Moussa comprendre ah, parce que muy yow muy man mënoon nan daanu ci piège boobu non xam nga dama yaa ngi dégg ma la bu doon man it li Moussa wax la waaw léegi lan mooy tax ñun ñun duñ daanu ci piège yooyu waaw parce que duñ daanu ci piège yéen loo xamante li xel nangu. Hmm. mooy li musaa def. waaw mooy mooy waaw waaw léegi naka na mënoon def ba duñ def ni Moussa def. ñun ñun ñun ñii. waaw loolu dina jafe. dina jafe pour ñu ñàkk def li Moussa def parce que kee ci baatin lay def te ñun joxul ñu baatin boobu xam nga ca départ ba def na ko dafa waxoon Moussa ne ko ci départ ba loo gis bul ci bul bul ci wax feek leeral lu ma la ko da wax ji. kon dafa waroon xaar. moom xamoon na ne musaa mu ngi ñëw mais ci niveau bii la toll te moom niveau bi muy waxee Moussa yeggul ci moo tax ne ko. suñu àndee li ngay gis noppil feeg lu ma la ko bul wax ah loolu moo doon mot d'ordre bi mooy mot d'ordre bi moom la ko waxoon mais Moussa d'accord ne ko nañ dem ñu ànd ak fan talaka ñu commencé dem yi ñuy gis xam nga woon eh, avertir na Moussa deux fois troisième fois bi la ne ko xasa firaa ko bay ne ba bay ne suñ tàggoo jot kon moom pédagogue la pédagogue la di da ko jox cours bi ni may demee waaw ni ko nag instant bi cours na nekk merci egguñ tey de egguñ tekki merci bul laajte waaw Moussa dëkku Moussa am lu mu gis ci cours ba ko defee ñetti yoon la ne ko nag mais yow dama lay dàq fi dama lay jàngal dama lay jàngal li nga xamul ma bàyyi la nga dem parce que yow mënoo ànd ak man moo tax ñu ne Moussa dafa yàkkamti Moussa bu teeyoon xam-xam bu bari mën na ko jëlee ci góor gi mu nekk lu am solo góor yàlla la ndeysaan xarit góor yàlla la n'est-ce pas mu nekk lu am solo mbokk yi gis ngeen ne yéen ba léegi seen émission tafsir Quran toll nañ ci deuxième étape bi nga xamante ni dañuy ubbi antenne bi kenn ku nekk participer il est quinze heures trente cinq di leen gërëm bu baax ci yitte bi nga xamante yéen a ngi koy def si tafsir Quran di gërëm wax al oustaz yitte gi oustaz ñëpp kontaan nañ rawatina waa internet saw Ali nee na c'est la pédagogie macha allah Abdou Diallo Pape Iba Fall Iba Fall Mouhamed Lamine Gueye imam bëri nañu Cheikh Diop Mhm. macha allah mhm. neen na bi am na solo mhm. trop trop li ngeen def am na solo donc imam vraiment nañu ñi ngi ñi ngi ñi ngi ñi ngi ah, connecté wu Hadiya ah, ah, euh, waa Paris waa France waa Maroc waa Sénégal ñëpp kenn ku nekk mi ngi connecté wu Gajak RFM wallaay ndeysaan n'est-ce pas macha allah yaa oustaz Taïb Socé xool yëpp sedd nañu ki nga xamante ne mooy Mama Gueye billaay wax nga dëgg ki nga xamante ne mooy Zainab kan Ndeye Baar Pouy ñoom ñëpp ñu ngi suivre imam ji kontaan bu nekk am solo ñu ngi ubbi li nga xamante ne mooy antenne bi 88 628 38 38 88 628 30 30 oustaz mën nga def sa casque ñu préparé di dégg ñi nga xamante ne ñooy euh, sunu auditeurs yi ñi ngi seetaan tamit télé bi aussi allo asalaamaaleykum asalaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullah yaa imam tey sose alhaji jaaji mbeng ñu ngi ziar ñoo ngi ziar di ziar waa Thiès yëpp incha allah ñu ngi ziar di ziar sax xarit imam imam di ma koy wax dëgg yàlla compagnon dëgg la yéen a yàlla dundal fanam may ko wér. amiin amiin amiin amiin amiin dëgg la dëgg la Cheikh bi dëgg la. du ma wax benn wax nag te jaaruma ci sama mbokk ma sama xarit ba. Alaaji Assane Gueye. yàlla yàlla suñu borom yéegale ko ci àddina. amiin amiin amiin amiin amiin. yàlla na ko yàlla boole ci ñuy wax yàlla taxaw mi yàlla la moo ne bi maa xam. rabbi rabbi wa jaale ni minal mukramin. amiin amiin amiin bëgg amiin. amiin. imaam teel ma xol yi. dëgg la macha allah. walaay asim seen kii bi neex na. dëgg la jërëjëf alhamdulilah. am na nag sama benn jabar boo xam ne bi soxna Ami Sow la tudd. waaw mu ngi lay nuyu mi ngi lay ñaan rek. ñu ngi koy ziar bu baax ñu ngi koy ziar bu baax di ko ñaanal. waaw. jërëjëf Cheikh bi. <laughs> jërëjëf yaa ji bàyyi ndeysaan moom suñu mag la bu nekk Thiès grand bu baax la dafa xër daal dafa xër bu xër la ñu waa ah. Thiès 88 628 38 38 Birane loolu mooy bu mu jokkoo gi ñu bëgg a participer seen tafsir quran mhm. mu nekk wéttal heure bi ci weeru koor gi kenn ku nekk nekk ci roqam ñi seen kër ñi seen bureau allo asalaamaaleykum. waaleykum salaam. turu mbokk mi ak foo ñu woowee. allo. turu mbokk allo turu mbokk mi ak foo ñu woowee sama sëriñ. asalaamaaleykum. maaleykum salaam yaa ngi Casamance turu mbokk mi. Moussa Diallo. Diallo Diallo Moussa Diallo Diallo fan ngay woote ci Casamance. maa ngi di diwaan Wellingara. ah d' accord yaa ngi ziar waa Wellingara yëpp. Mhm. Mhm. allo. allo oui yow la ñuy dégg. maa ngi ah. yal na yàlla nangu ziar. amiin jërëjëf jërëjëf. merci beaucoup jërëjëf sëñ Diallo dama la siyaar rek. jërëjëf kontaan nañu yal na yàlla nangu siyaar Cheikh bi. amiin yaa Allah amiin yaa Allah di gërëm waa Vélingara waa Casamance ah. Serigne Diallo. 88 628. 38 38 ñu bëgg a participer mën nañu participer waaye internet tamit ñu ngi bàyyi xel seen message. salaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum salaam wa rahmatulahi taala wa barakaatu. kooku ah ah Imam Pouye man la Assane Diop. Eh, Diop Diop na ngeen def. Euh, Ah, sope sope eh, Taïb Socé. Diop Diop Diop ñu ngi ziar <laughs> Diop. Mm, Diop ñu leen di ziar di leen ñu bokk ñun ñëpp. Euh, ñu ngi Dakar mais waa waa Taatane séeréer la waa Taatane da leen di déglu da leen di bàyyi. xel ndeysaan mhm, ndeysaan. Mhm, mhm. ok ñoom ñëpp ok ñu ah, ah, ziar ñu leen di kontaane bu baax a baax a baax. alhamdulilah alhamdulilah. Ah, vraiment émission bi am na solo neex na trop. vraiment jërëjëf Assane. yal na yàlla fay tayib ah. amiin amiin ñëpp incha allah. na bu baax a baax a baax. merci beaucoup merci Diop

ñaan gi weesul ñu bale nag suñu borom. Mm-hmm. ndeysaan. Mm-hmm. yàlla leen suñu yàlla fayal ba fayal boppam. amiin yaa Hamza amiin amiin amiin amiin. amiin ñaan gi foofu laa koy def rek yàlla leen yàlla fayal suñu fayal fayal la. amiin amiin amiin ñu bokk ñun ñëpp incha allah. ba or ba heure bi di leen déglu ngeen ñuy teg ci yoon. dëgg la mm-hmm. ñu xamal. sant yàlla. amuñ seen pay. ndeysaan. yàlla mi am pay. yàlla ñu leen yàlla fayal amiin amiin ñu bokk ñun ñëpp incha allah. te ñaan yàlla si koor gi lépp lu ñu ci war yàlla ko yàlla nangu. amiin amiin yaa Hamza amiin amiin jërëjëf jërëjëf eh, Amsata Diop eh, Cité uh-huh. Fadia ñu ngi koy gërëm uh-huh. imam waa uh-huh. Mauritanie ñeen ñi ngi suivre n'est-ce pas waa Burkina Faso ñi ngi suivre waaw Mauritanie dafa am suma benn jigéen bu tudd Aïssatou Li mu mu ngi nekk Nouadhibou Nouadhibou voilà asalaamaaleykum <laughs> aleykum salaam yaa Oustaz cheikh bi kookan la ñu ngi sa ñu ngi ziar yal na yàlla nangu ziar Maxtaar Gaye Louga Gaye Gaye ñu ngi ziar waa Louga Maxtaar Gaye Louga ñu ngi ziar fan nga dëkk ci Louga ban quartier ah, ah? ban quartier nga dëkk ci Louga. maa ngi dëkk fii dëkk bi naan Wélingara Wélingara Tall. Wélingara Tall ci côté Louga la nekk. waaw Louga waaw la nekk. waaw d' accord d' accord incha allah. ñu ngi ziar ziar baax a baax. sëñ bi yàlla na ko ziar di rafetlu émission bi. alhamdulilah alhamdulilah. waaw li nga doon wax léegi sànq rek ci euh, nu mu xoo laax bi nga doon wax sànq léegi. laaxu la laaxu caaxaan. laaxu caaxaan waaw. <laughs> oui. waaw. gars yi euh, loolu moom yàgg na moom yàgg na laaxu laaxu caaxaan. Ah, waaw ndeysaan loolu yàgg waaw yàgg na de. daa ko caaxaan la tudd man de mosuma ko lekk wax dëgg yàlla. oui ah, oui toll na ay toll na jamono ma wax di yàlla fi ne nit ñi sax dinaa baxal dugóor di ko lekk. dugóor xam nga xam nga ñun yàlla daf ñu def yàlla daf ñu nattoo li li li Moussa. dëgg la ah. li daloon Moussa ci ci tumaranke ci wuti xam-xam. mu dal la dafa am lu ah. ñu ci dal. moo tax laa ko caaxaan ak lu ne gis nañ ko lu ne lekk nañ. waaw ñu. oui ndeysaan. Uh-huh. jërëjëf waaw ñu ngi rafetlu émission bu baax a baax rafetlu émission. oh ñu ngi jégalu waaw numéro doon laaj mais dinañ soo woote waa tey Birane Cissé dina la ko jox. incha allah 88 628 88 38 38 n'est-ce pas 628 88 allo asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. waa turu mhm. mbokk mi. sëñ tey. cheikh bi. ñu ngi lay ziar. ñu ngi ñu ngi delloo ziar kay. Moustapha Mbaye. Moustapha Mbaye fu ñu woowee Moustapha. di ko parcelle unité cinq Mbaye Mbaye ñu ngi ziar ñu ngi leen di ziar di leen ziar bu yal na yàlla nangu ziar leen ñaanal di leen ñaanal yàlla amiin amiin amiin yow oustaz tey leen ñaanal yàlla seen fan gudd mm-hmm. yok amiin amiin Oustaz Taib ñun dañ la soppee woon ci bi ngay nekk rajo Dunia. boobu lañ lay suivre may jàng métier. wax nga dëgg de yaa mos depuis quatre vingt quatorze. quatre vingt treize boobu ngi nekk xale di jàng mm-hmm. métier. Mm-hmm. boobu lañ lay sopp di la topp ba léegi ma lay topp man ak sama benn xarit Baara Sock. Mm-hmm. Baara Sock mi ngi dëkk Inte 5 ñoo doon jàngandoo métier. ñu ngi koy siyaare mhm. moom it ci weer wi. incha allah incha allah incha allah ñu ngi lay bëgg a ah, ah, doon def yi a baax. incha allah incha allah yow mbokk moom nga toogandool ñu ngi leen di bu baax a baax di la woon di kontaan nañu kontaan nañu bu baax a baax yàlla na yàlla yokk sa fan yal na yàlla yokk sa fan yal na yàlla yokk sa fan yokk sa wér kontaan nañ bay boo nga xam ne am nga soppee ah, soppee boo xam ne ni toujours da lay bëgg a gis sa numéro téléphone nag su ma ko mënoon am dinaa ko amoon naa ko mais dama ko perte soo téyee ligne bi rek ligne bi waaw waaw waaw Birane dina la ko jox jërëjëf kontaan nañ kontaan nañ jërëjëf merci jërëjëf jërëjëf Moustapha Mbaye di ñu wote Parcelles Assainies di gërëm imam bu baax Mamadou Alpha Fall di gërëm Cissé Babacar El Hadj Diop n'est-ce pas marché HLM Amadou Dia n'est-ce pas nee na imam yi yaa ngi liggéey liggéey bi am solo yi euh, nga xamante ni itam mooy Providence Manel Imam Assane Balde nee na Assane Balde depuis Tamba professeur anglais je ne rate pas cette émission. Ah, ok nee na je m'avoue veux parfois bu fekkente de daka tardé sax day am lu ko métti. nee na c'est comme un film. Mhm. nee na comme film la merci beaucoup. professeur Balde how are you. we are very mhm. glad for you. merci n'est-ce pas euh, euh, Mamadou Samba Sow n'est-ce pas ma ngoog Cissé Babacar allo asalaamaaleykum. Mhm. allo. salaamaaleykum. waaleykum salaam tur mbokk mi. ñu ngi leen di ziar bu baax. delloo delloo ziar cheikh bi na ngeen def turu mbokk mi ak foo ñu woowee. Al Maktoum la maa ngi ziar. Al Maktoum kaana yunaadini fi jaamiat Cheikh Anta Diop. mu mu zaman mu zaman. aywa man de zaman. Maktoum xam xam nga Maktoum bi. bien xam naa merci beaucoup. surnaakum maa maa ngi leen a ziyaara bu baax a baax. yal na yàlla nangu ziyaar. di leen baalu xaq di leen baal di ñaan yàlla mu boole ñu jéggal. yàlla may leen di fan may leen wér. amiin amiin amiin taxawaay bi rëy na rafet na. alhamdulilah alhamdulilah yal na yàlla sàmm leen. amiin amiin. alquran ji neex na lool macha allah. yal na yàlla sàmm leen bu baax a baax. amiin yaa Cheikh amiin. xolu julli ñëpp. mbégteeg rek nga ciy ba alhamdulilah ndax la ma la waxoon dafa am kalima yoo xam ni maa layen sharif la yàlla daf laa boole ci yooyu alhamdulilah xam ne yàlla may la gudd fan loolu rek lañ lay ñaanal amiin amiin amiin xam nga keroog nee naa la kam sunnatin axyayta baxda imatatin wa ahmad dalala baxda tawaqudi waaw wa ahmad dalala baxda tawaqudi baxda tawaqudi naam waaw yow alhamdulilah alhamdulilah yàlla sàmm la sàmmale imam biram jërëjëf incha allah incha allah leen yéen ñëpp ñu ngi kontaan bu baax yàlla borom kontaan si yàlla borom kontaan si aywa ci sooratu kahfi bi mm-hmm. diggante yàlla muusa yenente yàlla muusa mm-hmm. Mm-hmm. ak xadir muy histoire boo xam ni jamono ju nekk dañ ko war di indiwaat ci pénc mi ndax yàlla nga koy jàngale kilifa daa jara fonk ndeysaan mhm. ndeysaan te kilifa amul lu dul baatam ndax xadir amul lu dul baatam mhm. mhm. moo tax Moussa il faut mu respecter baatam il faut mu respecter tamit orientation yi nga xam ni moom la koy def moo tax boo bëggee jariñu ci yàlla il faut nga am kilifa loolu rek la yàlla jàngale kilifa kilifteef am na lépp waaye yàlla nag ni ko il nga daw uti kilif mhm. ndeysaan mhm. ndax kilifa moo lay xamal loo xam ni ump na la ci àddina mhm. ndeysaan nag ñi dañoo wax ni ku la jiitu ci néeg bu lëndëm moo laa wan fi nga toogee moo tax xadir loo xam loo xam ni Moussa ah moom yeneen ti yàlla Moussa loolu ump na ko yëpp xam ko su ko defee daal lim ñu jàngal rek ñu ca ñu dégg ko ci mooy am kilifa gën a fonkaat suñuy kilifa. incha allah hmm. loolu rek la jàngal yéen a yàlla defal leen tawféex. jërëjëf jërëjëf maa ngi dégg fala budda min shakwa ilallahi kurbati. lu gudd la. Hmm. Hmm. ndax bi maw day dem màkk ngeen jégal ma de. Ah, ci bismillah fadal nekk ci ginnaaw. ba muy dem màkk ca yoon wa. ñu ne la ca la gaalam ga euh, am jafe-jafe. ndeysaan mag ñëpp nag ni ko yëf yi yow la. yaakaaroon ku dul yow. mawɗan imam yakaru mum ko jogi allah ɗum fala budda min chakwa ila llahi courbati fana li gayra llahi jabidu alhamdulillah وقر هي باب القير يا ربي لم يفت لذاك صرفنا نحو بابك وجعتي نحو أنت كريم فالكريم أنت كريم فالكريم man iltaja ila baabihi ya man ala kulli ni'mati macha allah su ko defee yàlla na yàlla am na solo kontaan nañ loolu yàlla am na solo am na solo vraiment macha allah jërëjëf sama sëriñ mu nekk lu am solo dëgg la macha allah 88 euh, 628 c'est important 88 628 38 38 88 628 38 38 mooy bu mu jokkoo ak ngeen bokk seen émission tafsir xuraan ak Oustaz Taïb Socé allo asalaamaaleykum waaleykum salaam turu mbokk mi ak fañ woowee Alioune la Niang Mbaye. ah. Alioune Niang Mbaye. Alioune Niang Mbaye ñoo ngi ziar. ndax du ko zaalika. Mbaye Mbaye Mbaye Mbaye. man maa ngi wootee Thiès. Thiès waaw ñu ngi ziar waa Thiès yëpp incha allah. ndax du ko zaalika ndax du ko zaalika. jërëjëf sëñ Aliou ñu ngi lay ziar. dama dama xamul Niang lay wax wala wax Mbaye wala ma wax Niang Mbaye. Niang Mbaye rek. <laughs> Niang Mbaye bi dee dàq. <laughs> kon d' accord Niang Mbaye. jërëjëf merci pour votre proactivité. incha allah merci beaucoup merci. vous êtes diligent. alhamdulilah jërëjëf jërëjëf jërëjëf merci beaucoup merci beaucoup merci Aliou. est-ce que mën naa dugg wala. yaa ngi ci biir yegg si nga yegg si nga te en direct ah asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. yéen a ngi sooke siyaar naa lu baax a baax. ñu ngi lay delloo siyaar bu yow philosophe nga. ah kay. ba pare pédagogue nga. Mhm, mhm. dama mhm, wax gan baatu. su fekkee ni amul opposé ci zahir mhm. loolu du baatil baatil la baatil waaw mhm. xam nga xam nga yàlla lu mu sàkk lu ne mhm. dafa am son opposé le jour la nuit baatil zahir léegi nag gis nga baatil ni nga ko indee dafay gën a dëggal ni tey fa tabarakallah bu fekkente ne baatil taxaw na su fekkente ne gisul ci seetu bi zahir baatin boobu du baatin mhm. ma dooleel la ci ne la baatin mhm. mooy li bëtu neen dul gis mhm. waaye bët ba koy gis yàlla moo koy pooseel nit fa tabaarakàlla yàlla na yàlla wéral sa xam-xam amiin sax bi amiin sax bi di tagu Sénégal nga ah vraiment kontaan nañu kontaan nañu waaw tagu Sénégal nga te ñi ngay aborder thème yi Mhm. man di ma ci gën a séddale mooy pédagogie bi. alhamdulilah alhamdulilah. yàlla yàlla leeral sa xam-xam. amiin amiin sax bi. amiin yàlla boo dajee doo ragal. amiin loolu contribution la rek bu ñu indi woon. vraiment kontaan nañu kontaan nañu la ñu bëri ñu ngi man en merci beaucoup voilà merci beaucoup man looloo mu sédduyeeg si yow. jërëjëf jërëjëf jërëjëf merci beaucoup. bu ko laajee nag sa te eh, Birane Birane téye ligne bi rek Birane Cissé dina la ko jox incha allah. Hmm? di gërëm le mhm. professeur Aliou Niang Mbaye mhm. fële sa Thiès di mhm. apprécier la pédagogie de Oustaz donc si un professeur apprécie la pédagogie c'est parce que am hein? na waa jàngalekat moom mën mëna apprécier loolu mu nekk lu am solo 88 628 38 xam nga imam sama sœur Far Socé la tudd Far Socé Socé Socé ñi koy ziar mën naa la wax na la moma ma doon boot ndeysaan ca yàlla moo doon bi ñu nekké xaleel ndeysaan dafa nekk ci ligne bi sonn ci lool. démb nee na ah, ndeysaan ndeysaan ndeysaan ndeysaan <laughs> dama noonu ko tey dama koy woo bon mais dama yaakaar ne itam. ndeysaan loolu la mais nga ja bàyyi xel ne. dëgg la mu ngi ci ligne bi. macha allah moom moo ma doon bood ah. est-ce que comme sa yaay la ko waaw sama yaay la. ndeysaan ndeysaan yal na yàlla sàmm <laughs> mu ngi ci ligne bi mu ngi ci ligne bi. allo asalaamaaleykum. allo. allo. allo dem na de xam naa mi ngi ñëwaat mu ngi ci ligne bi de ah 628 38 38. 88 628 38 38 allo asalaamaaleykum. asalaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum salaam wa rahmatulah wa barakaatu. turu mbokk mi ak fa ñu woowee. Ah, man de Kër Madiabel laay woote. Kër Madiabel Kër ñu ngi ziar waa Kër Madiabel yëpp kan la. Mhm. Eh, tey eh, Alaaji Dudu Mbuub la wax. di bëgg tey kooku sama mag la sama grand frère la. <laughs> ñoo bokk yaay. xam nga li ngeen wax ne eh, lépp xam-xam. dëgg la. Mhm. yar moo koy joxe. dëgg la. Mhm. te yow sëñ bi tey soose moomu nga neyal. baayam da doon jàngale. dégg la. Mhm. daara la amee woon. Mhm. di fa jàngale xam-xam. mu am yar ak teggin ba baayam defe li yàlla defee li ko soob. ndeysaan. nijaayam yar ko mu jox ko cër ba ba mat sëkk. ma bokk ak moom ndey. Mhm. mu am yar ak teggin goo xam ne yar ak teggin googu lépp lu mu am rek moo ko ko may. dëgg te te kër ma jébel giim. waxtu wu ñëwee ay bokkam. ay kilifaam kenn ku ne da dana la jox cër. kon nag dañ koy ñaanal gudd fan. wér gu yaram parce que sagla si suñ biir. man magam laa woyaan rek laa man tagg maam moom mu jar ba ko yàlla jox ko xam-xam boobu am laay rabbil alamin yàlla ñu yàlla la fal amin amin amin amin amin incha allah amin jërëjëf sëñ Dodo di waaw sëriñ moo Dodo Dodo Mbub ndeysaan sama sama mag la ndeysaan ñoo bokk ndey ndeysaan ca Karma Jabel ndeysaan voilà ñu koy ñu koy ziar bu baax wax yi wax itam rafet na trop imam parce mm-hmm. que nee nañu itam nit ndax baax ndax ndax mbokk yee ya, ko wax mu nekk am mm-hmm. solo mm-hmm. allo asalaamaaleykum asalaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullah eh. asalaama maa leen di nuyu waaw ñu ngi leen di fay maa ngi nuyu Sass Taïbou Socé maa ngi lay fay cheikh bi bu baax sax maa ngi koy gërëm di ko sant am naa bu ma gisoon sax du ma xàmmee ndax jàngal na ma ci classe am rajo yaa turu mbokk mi mm. man maa ngi tudd Mamadou Lamine Mamadou Lamine Mamadou Lamine fa ñu woowee Petit Mbao. bisimilah Mouhamadul Amin naka. Touré. ah bu ma la gisee mun naa la xàmmee de parce que. non doo ma xàmmee parce que boobu xale laa. <laughs> te léegi grand nga. <laughs> waaw léegi grand laa yaa ngi doon jàngal alphabet arabe yi. merci merci ci rajo Dunia. waaw gratuitement. ca mahadul hamdi wa shukri. wallaay wallaay yal na la yàlla fay. benn baas yal na ko yàlla dolli leeram ci àjjana firdaws. amiin amiin ak yéen ñëpp ak waa ITV. Mhm. jërëjëf Chabi mhm. jërëjëf. parce mhm. que si a la am sa déglu tafsiru yaasin bi benn yoon laa ko déglu ba nga ko jeexalee. laam nga yàlla mën loo. ndeysaan jërëjëf vraiment kon yal na la yàlla fay fay waa ITV. amiin amiin amiin amiin amiin yow moom oustaz bu dëggu nga oustaz yi bari nañ loolu waaye dëggu gi dafa xaw a jafe trop léegi man yow rek laay déglu ak paa bi Makhtar Seck. yal nañu yàlla jàppale waaw Makhtar sunu sunu oustaz la ndeysaan amiin dëgg moom day metti waaye dëgg moom mooy. sant yàlla sant yàlla alhamdulilah alhamdulilah. Uh-huh. merci jërë ngeen jëf jërëjëf jërëjëf ndeysaan. Mm-hmm. nee na sama élève la woon damaa ko doon jàngal. ndeysaan mais léegi grand la macha allah nekk lu am solo. Ah, léegi grand la ah, ah, macha allah mu nekk lu am solo. jërëjëf macha allah alhamdulilah. 88 628 38 38 allo allo salaamaaleykum. alhamdulilah kon ko jot naa la. Oustaz Seydou. allo Adja kan la. ma la nuyu Ndumbe Kase. eh Kase Kase noo def. la yàgg déglu naa nag depuis Zid FM. xaw ma hmm. jamono yooyu waaw waaw dama lay suivre rek. ah kay Kase Kase Kase Kase ñu ngi fi baal nañ leen. ak Oustaz boobu toog. imam Birame Pouy. waaye ñëpp nuyu naa leen. Eh, ndey Kase fan ngay wootee. man maa ngi fii den ak Dominique. ah d' accord d' accord maa ngi dégg waaw. yaa ngi Pikine na ngeen ñaan ma damay sàkk xam-xam dégg ngeen. Eh, da ngay jàng lan yaa ngi jàng. damay jàng araam nag damay jéem na ngeen ñaanal. góorgóorlul góorgóorlul. Hmm? surtout yow laaj man du ma la wax waqul rabbi zidni ilman. <laughs> waaw moom nag moom na wax zidni crédit. waqul rabbi <laughs> waaw jamono jii. waqul rabbi zidni crédit ah. da dem ba pare. doo ko wax waqul rabbi zidni ilman ne ko wax. nday nday kase ndeysaan mu ne la 88 628 38 38 macha allah mm-hmm. mooy bu mu jokkoo gi imaam yaa ngi wax lu am solo allo asalaamaaleykum ah, waaw aleykum salaam wa rahmatullah man man hu koo kan la yaa imaam koo kan la ah ak ah, Ousseynou Karbala Ousseynou sawar nga tey sawar nga sawar nga maa ngi lay mm. ziar imaam tey <laughs> yaa imaam Ousseynou tey dafa ñëwee doole yaa Ousseynou lay ñu ngi lay ziar mais xam nga lu ñu bëggoon mm. waxtaan wi nga defal ñu ko ci ay cassette ndax lii dafa am solo yaa imaam Tayib mm-hmm, mm-hmm. waaw bàyyi ci xel bu baax Tayib li nga bëgg yaa ko xam yàlla na la ko yàlla defal amiin amiin ñu bokk nekk Tëngéej man maa ngi dëkk euh, Fanta balaa dëkk ci Tëngéej mm-hmm, waaw am na sama mi ngi dëkk HLM ci tamit euh, foofu noonu rek ci sa ah, na solo am na solo yaa imaam Tayib yàlla na la yàlla sàmm yaa imaam Puy moomu amiin yàlla bu leen kenn góob te ñoru leen imaam xol yi dafa sedd guy wallaahi azim jërë ngeen jëf merci beaucoup imaam defal loolu def ci ay. kese incha allah dinañ ci jóg dinañ loolu dinañ loolu ko bàyyee imaam imaam boo jógee. Mhm. nga xool yëf yi naka lañ koy defee ci kele di ko jox gaa ñi soxla nañu. bien sûr allah ndax nañ nekk ñu ngi ziar waa marché Tëngéej yëpp. marché Tëngéej day ñoom itam. Mhm. vraiment marché bi yëpp dañuy déglu tafsirul Quran. ñu ngi leen di ziar allo. allo ñu ngi ziar. yàlla nangu ziar. ñu ngi ziar imam Birame Pouy ak imam Taïk Sow. ñu ngi lay ah, delloo ziar sama sëriñ. tur mbokk mi ak foo ñu woowee. Aruna Sow Malika. ah sëñ Aruna Sow Sow. ñu ngi leen di ziar bu baax a baax a baax. delloo ziar sëñ Aruna yàlla nangu ziar. ñu nuyu waa Malika di ñaanal télé borom xam-xam yu nekk ci télé beeg yëpp. man moom ñoom rek laa sigur mooy li ma waxoon rek. sama mm-hmm. poste dama ko kale ci i média ak ITV quoi. ndeysaan macha allah. imaam borom piir dama lay seetaan guddi gi ak Boubacar rek. Mhm. maa ngi seetaan bu imaam Tahir bu piir. Mhm. waaw waaw waaw. maa kontaan ci moom bu baax a baax a baax. alhamdulilah jërëjëf jërëjëf Cheikh borom xam-xam dëgg ngi noonu. maa ngi koy ak imaam mhm. Zakaria ak. Eh, moom fii yi. vraiment keroog maa ngi koy waxtaan. ne ko fii moom am nañ Mm-hmm. ñaanal daal maa oh. leen di ñaanal yal na yàlla fay leen amiin amiin amiin am nañu ay abaqira ndeysaan ndeysaan am nañu ay abaqira eh, tey naka la iftaar bi nu muy demee waaw tey mbokk yi ma jox leen rendez-vous ak Oustaz Taïb tey Oustaz Taïb mooy ñëw iftaar à partir de vingt deux heures trente ngeen jàpp ITV loolu day guddee de waaw heure boobu heure mooy bu gën teel ah bon yow dañu dañu lay jukki. man xam nga 21h30 rek fekk na tëdd na. waaw tey moom tey moom. nekk parce que leg leg damay jóg. ndeysaan ah guddi gi. waaw eh, tay mom sa jogu julli sa sa jogu manam tay dal kon nafi legi ma def ko iftar iftar man nay nek man nay nek incha allah sénégalais yëpp ñu jàpp iftaar jano oustaz Taïb. Hmm. ñu mu wax len mom moy kan ñu ñu laaj ay question ngeen poser ay question histoire am. ah naka la commencé tafsir. Ah. def nañ tamit ay am nay surprise yo xamante dal daal. Ah la wax dara bàyyi ba ngoon nga ñew rek. mbaa du ma ñëw ñu ñu ñu. tey dara dara dal dara dara dal imam tëjal <laughs> kon incha allah ñu ngi ñu ngi am mbégte mbokk yi vraiment di gërëm ñëpp dama xamul suba fan ngay fekk Moussa. suba xasas. waaw. xam nga dañoo demoon Shuara. waaw Shuara dafa niroo ak Taha. dëgg la parce que mbëkkante bi la. tey nga ne mën nañ dem ci. nañ xool Moussa ak Xadir. bu subaa ñu dem. xasas euh, ñu xool fa Moussa ba léegi. waaw ndax kaada alquran an yakuna mawsawiyan yonent bi ko wax kon mbok yi ñu ngi gërëm ñep di sant ñep dalen leen jox rendez-vous ngoon ni imam waxe ci al iftar ci ITV ak ci radio inshallah assalamu alaykum wa rahmatulah lu jub ci borom bi la lu dëng ci madam assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh Wizall Money transfert d'argent roi du tissu Fimolux ñoo leen doon may seen tafsir alxuraan ak oustaz Taïb Socé téléchargez l'application Weasel Money ci Play Store ou App Store ak Weasel Money Younil ak jotal Khalis fépp ci Sénégal ak Weasel Money Fayel say facture te Weasel fay dara Money le compte qui facilite la vie. La radio est une imagination. Imagination. La vôtre bienvenue sur e-radio. 90.3. 90.3. Les luy xibaar mën ngeen ko e-radio. jangeen jëf yenn auditeurs u i rajo ñeenti waxtu sëngam moom moo jot fii si biir euh, studio bi mi ngi Maxam Njaay moom moo féete si kàddu gi si beneen wàll ba Alaaji Birane Cissé xabaar yi dañ koy door ak li nga xam ne rek ñoom ñoo di liggéeykat yi lu toll si juróom-benn fukki junni si ñoom jamono jile dañoo lorule si li nga xam ne rek moom mooy mbas mi di Covid 19 kuréel yi nga xam ne rek ñoom ñoo ëmb syndicat yi